asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ànd ñun ci sbt média point com amaan nañu mbégte ak kontaan ñëwaat fii tey seen émission nay riir tey nag seen émission nay riir euh, nay riir bu spécial ndax ki ñu dalal euh, Sénégal yu bëri xam nañ ko du ma ne sax ndaanaan la ndax ci biir ndaanaan gi ndaanaan la ak du ndaanaan moom ci biir émission bi lay feeñee mais Adama Diarra lay woo Aara ñu ngi lay nuyu waaw Mass maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar yow aussi hmm, di nuyu waa sbt média di nuyu Sénégal yi nga xam te ne aussi tamit ñoo ngi seetaan chute bi di nuyu fépp fu waay na mën a nekk rek di doomu réew mi ak bitim réew maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax nag gars yi nañu ci chute bi ah bu ñu abonné ba pare nañu bës cloche de notification bi du mën di seetaan suñu ay vidéo mu mel ni que du ñu balaa ñu dugg si waxtaan comme dañoo nekk si koor mu mel ni que kon toll nañ ci baalante àq ñu bàyyi la nga baalante àq ak sénégalais ak soppeeku. waaw waaw di di profité ci weeru koor gi ñu nekk di baalu ak Sénégal yi nga xamante ni aussi tamit ñoom dañuy faral di suivre fu ñu mënti nekk rek di leen baal ak di ñaan yàlla ñu yàlla boole baal ñu teewee ko ay at yu bëree bëri yàlla may ñu koorum jàmm ah, mbas mi nga xamante ni aussi tamit tegu na suñu kaw ba lëmbe àdduna bi yàlla jëlee ko fi ci barke alxuraani karim ah, di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp parce xam nga ñun li ñuy liggéey dafa am rapport ak public bi donc dafay baax bu ñu defee benn affaire donc ñu ñu jégal leen bu a baax waaw ah, noonu seen émission nay riir la ñu dalal ki nga xam si moom moo Adama Diarra nekk fii diwaanu Pikine balaa ñu ñëw ci waxtaan bi euh, euh, ma leen di a abonné seen seen YouTube SBT Média mën ngeen ànd a abonné sunu page Facebook bi muy SBT Média point com ak sunu Instagram ak li nga xam moom moo di Twitter mais Ada euh, ci ci lu rek nga defal boo ñu doon defal présentation kan mooy Adama Diarra lan ngay wax. waaw Adama Diarra day donc moom benn benn jeune la rek boo xam te ni Pikine la dëkk. yaro Pikine màggee Pikine defee fii enfance am euh, bon nekkoon booy bu lëj quoi <laughs> donc sama base lépp Pikine la lépp lép lépp daal Pikine laa ko defee fii laa jàngee école fii laa jàngee métier fii laa jàngee arxuraan fii laa dalee ba ci théâtre fii laa jàngee lépp ba fi may waxee yow génn ma Pikine voilà nekkoon booy bu lëj bu trébul boo xamante ni ay bêtises rek laa doon def. Sadji Mango rek ma syndicat dégg naa. <laughs> waaw bi ma gëjee nag syndicat yàggut de barki démb la barki démb toog nii rek woor ba pare ñu tourné ba pare rek sama xel ne ci man Waly Bangoura Baba Gueye ak euh, euh, kii waay ma dikkee ma rek sama xel na ci ma ne kaa leen dem syndicat buuju yàlla xam ne ko ñu tourné ba pare rek ay 5 heures dem syndicat dugg biir a fekk yow fañ doon buujoo ndeysaan ñu teggi lépp ñu découragé nag waaw yooyu yëpp def nañ ko ay dem dex meew ah uti bëqër dagg lekk waa yooyu yëpp yooyu yëpp jaar nañ ci jaar nañ ci waaw. mu nekk moom mel ni que ku wax ku wax xale wax jàng sa sa maanaam sa niveau sa niveau si wàllum jàng fu mu toll. CM2 classe góor ñu baax ñi. ma yàlla xam na ko classe góor ñu baax ñu sem 2 fa laa yem de maag papa laay mii di waaye ñoo bokkoon classe ndeysaan te nag yàlla dimbal nañu jàng nañu ak may fay mu nekk rajo oxygène may fay ñoo bokkoon classe def nañu sixième ba sem ñu mësuñu redoubler nag man sem 2 dañoo rappel ñëpp di dugg ñu dugg tuuti génnaat dem. nii nii nii nii nii yàlla xam na ko te maag papa laay ñoo daal concours ndaare beeg avant ndaare te mosuñu redoubler yàlla mooy nañu loolu léegi nag man sama yaay daf ma doon wax naan yow de man yow yow man xale bi xale bii jël ndaare rek laa yërëm yaayam yow avant ndaare ngay jël xale bi jël ndaare moom yaayam rek laa yërëm man jaratul mooy jooy parce que papa laay maag moom ñoo doon concours avant ndaare beeg ndaare bi donc mu nekk ay affaire yu neex yoo xam te ni jaar nañ ci quoi mu mel ni que ku wax xale wax jàng mu mel ni que tey bi nga màggee maana bi nga nekk xale xamu woon njëriñal jàng mais mu mel ni que léegi bi nga màggee nii réccu ko. non réccu naa ko trop franchement te am na am na am na lu ma lu ma lu ma lu ma indil ci ay ay ay jafe-jafe yoo xam te ni mooy loolu malgré nag maa ngi liir maa ngi bindal sama bopp mais euh, bu démb doon tey dinaa dinaa dinaa gën a concentré ci njàng mi xam nga boo nekkee xale rek donc bu la naan doo comprendre mais tey comprendre naa bu baax a baax a baax même sama làkk bi nga xam te nii suñu wàkk dañ koy làkk muy bambara wallahi azim réccu naa li ma ko jàngul bu baax a baax parce que ba fii may waxee yow nii nii nii nii indi na ma lu bari bari bari handicap ci sama wàllum aar daal. waaw ah, parce que tey su ma déggoon france beneen affaire la donc dégg bambara beneen affaire la parce que sama profil nii rek ah, donc gaa yëpp dañ may wax. Euh, boo ci boo concentré ci sa profil d'après li nga li ngay li ngay def ci théâtre mooy loolu mais nag teewul damay lire texte ku ma jox texte dama koy lire normal damay bindal sama bopp nice mais bëggoon naa gën a sori quoi. waaw xam ne dañoo toll si jàng te te nanguwu ñoo jàng maanaam âge bi nga xam ne yow fa nga toll ba nga nekk rek maanaam ñi nga xam ñoom ñoo fa toll seen race bi ban message nga leen di lancer. donc message bi ma leen di lancer ñu góorgóorlu rek dem jàngi ah ñu gën a concentré wu ci suñu ay waajur li ñuy wax donc waajur bu nekk boo sañew sa doom màgg dem jàngi école am niveau étude boo xamante ni donc doo comprendre donc dama leen di lancer képp koo xamante ni élève nga moo xam xale nga wala mag nga nañu gën a jàng parce que jàng dafa am solo te man mii di wax ak yow instant bii nii yàlla xam na ne maa ngi inscrit ay cours mu arxuraan ah, bëgg ku may jàngal ah, ay ay ay cours français genre demee noonu yàlla xam na ne ci laa nekk waaw ah, donc dama leen di conseil ñu gën a concentré wu ci seen jàng quoi mu ngi noonu seen émission nay nga xam ne si nii moom moo nekk ci diwaanu Pikine mais ne moom moo di alxuraan alxuraan foo toll. alxuraan bi nag yàlla xam ne dama yàlla jégal mun ay saar mais sori ma xam nga lu tax lépp sama lëcc rek moo ma ko yóbbu woon parce que dañu daa yóbbu alxuraan nañ dem leen jàngi man damay dem dugg tuuti rek bu ma duggee tuuti balaa oustaz bee ñëw lem naa samay affaire dem yàlla xam na ko donc lu ma métti la nag franchement yàlla xam na ko damaa màgg ba nii di ko réccu mais damay julli damay woor saar ma bëgg a tari maa ngi ciy sar dee benn xul walaaw sax koy tari waaw. mais met nga xul walaaw rek nga mokkal de. non mun naa mun naa mun naa mun naa saar yu bari naa saar bari yàlla xam na ko. mun naa saar yu bari damay tari damay tari mais sori ma ci sori yooyu parce que dama dama dama fooyee sama sama sama sama life quoi yàlla xam na ko. mett na ma trop parce que toppoon ay simb ay paam ngom mag ëmma seen simb yi laa doon wër ak ay gauche ci jamono yooyu nekk nekk booy bu ndaw boo xam te ne da ngaa lëj donc yàqal na ma sama njàng yàqal ma yu bari daal. yàlla xam na ko met na ma nag mais seen seen émission nay rit la ñu dalal xam ne moom moo di Adama Diarra dégg ngeen li mu wax ci wàllu enfance am ci ñàkk jàng bi handicap bi xam ne andi na kon yéen ñi nga xam ne suñu rakk nekk suñu ay doom toll si jàng dem leen ngeen jàng ngeen góorgóor te xam ne euh, am réew mënut a dox sans ay xale yoo xam si ni dañ leen a toppatoo leen fi leen war a te kon réew mi ci xale yi lay baasu pour am relève bi ëllëg kon xale yi góorgóor leen a baax yéen ñi nga a góorgóorlu renforcer éducation baax mooy baas bi no mooy base bi moom man moom li may conseil mooy wax naa ko pare nañ dem jàngi quoi uti xam-xam te nag njàng du wees wax naa ko léegi man fii ma toll nii yàlla xam na ni am na Oustaz Imam euh, ma naan Oustaz Imam Imam misaan mën na ma seede ci lii may wax bu seetaanee image yi parce que moom dafay dafa dafa jàng alxuraan ba yar école te aar ko la bokk. billaahi wallaahi wa tallaahi woo naa ko ne ko imam misaan dama bëgg man sama troupe ñi nga xam te ne dañ faa nekk donc nga ñuy jox ay cours ñuy ñëw di jàng si alxuraan. Ah, donc dem naa ba am idée boobu ba ñu jàppoon ay mercredi ak vendredi yoo xam te ni par soir dañuy dem mu ñuy jàngal alxuraan te boobu ma am yàlla xam na ne fan yëpp mi ngi sama xel pour waa aar ko ñun ñi nga xam te ni suñu jàng demee demeewut noonu ci wàllum alxuraan bi ñu koy def même buñ ko dee def ci semaine bi ñaari yoon weer bu dee ñu yëkkate dara luñ ko fay yàlla xam na ne dafa baax parce que jàng du wees donc loolu su ko mënta am damay dem damay dem jàngi damay dem jàngi te maa ngi ci parce que gunaas fii rek am na benn paa boo xam te ni dafay jàngal ay mag waaw donc du question ñàkkuma jàng ñàkk jàng yooyu ba tax alxuraan bi wala diina ji xaw ma ci dara xam naa ci lu bari mais gën a jàng ji rek dafa baax quoi parce que xam-xam du du teddu day waar. message bu am solo la ak SBT Média seen émission nay riir wax naa émission bi début bi nag niru na loo xaw a sedd nii mais xam naa ci kanam tuuti moom xam naa dina commencé sauvé mais mu mel ni que aada ku wax jàng après bu jàng mu duxut après da ngay am métier est ce que aada ma jar am na métier. fii man nag yàlla dafa dogal am naa ay métier parce que bi ma bi ma bi ci wàllum jàng gi toppoon sëmb yi mujj gi man sax maa wax sama yaay ne ko. dama bëgg dama bëgg dama bëgg dem jàngi métier yàlla mi xam na ko li may nekk ne xale ci période boobu dama bëgg jàngi métier mu ne ma looy def parce que fii marché Zinc dafa amoon benn atelier bu mag bu fa nekkoon ko yoroon ku tudd góor a ma ne ko ci waa ji laa bëgg a liggéey billaay wallaay watalaay donc ci noon laa demee dugg euh, atelier liggéey menuisier yàlla dimbali ma menuisier bi nag ma am ci xam-xam lool nag mënoon ko lool ba suñu patron boobu daf ma bëggoon. menuisier patron boobu bëggoon ma tellement ni ma bëggoon métier bi ak ni ma ci teelee am xam-xam ak ni ma ko teelee ma nekkoon xale bu ndaw mu jël ma taf ma doon sax méngale ak doomam parce que dafa demoon ba benn instant boo xam te ni man a fonk ko doom ji parce que ni ma bëggee métier bi samay bët yi amoon na problème moom moom faj ma mën métier mi lool mu dugal ma ci école de formation may dessin di sculpter lépp ma koy def mënoon ko lool mais sama santé moom ko may loon parce que dama am man dama xaw a am dama amee drépano Hmm? donc donc daaj yu métti yi ma doon def après da doon répondre sama yax yeeg genre demee noonu lool moo tax ma bàyyi ko après def naa tailleur tailleur sax laa njëkk a def communiser jóge fa def animation yor Sena musique parce que suñu kër DJ Tupac dafa yoroon matériel musique yooyu li may xam nga ci dara matériel musique ma nekk ci aussi di animer mënoon ko lool trop trop trop trop macha allah donc. bi oxygène di ibi laa dem sama papa wax ko ko dëggal euh, raay FM pour def foofu ay émission sama papa moo ma tere ne ma mënoon dem ba nekk mag di ko def bàyyi ko. na bàyyi ko après donc at na parce que suñu kër aussi tamit dafa am koo xam te ni vieux baa ji plombier la bu daa dem sànc ñun boo yëpp daf ñuy buub bari naa ay métier bari naa ay métier làmb sax def naa ko bëre wallaay Azim. yow mii takk nga ngemb. la <laughs> ilaha illallah ñi ma xam dëgg te seetaan vidéo bi billaay laaj leen. nekkoon fi ngan di maamu dofi nit yooyu mu doon bëre rôle nekkoon équipe ramdaan bii nga xam te ni père Ahmed Seye moo ko yoon fi ñoom jare de nekk tey euh, ñoom laay man bi ma fay dugg génération ñoom laay balde maa fa gënoon nekk xale ñoom laay balde laay Lo te laay balde sax a tax ma dugg euh, doon doon bëgg a bëre laay dugg ci entraîné nekk nit ku macha allah mënoon kon man xam li ngay laaj ma seen émission nay Arame Diarra dégg ngeen li mu wax na moom nekkoon na mbër yow takk nga ngeen daan bëre nii yàlla mi ñu tiim xam na ne nekk naa mbër di bëre mais boobu dugguma ci arène parce que boobu làmb melagul nii mais sama papa moo a teroon parce que dafa amoon période boobu benn waay boo xam te dafa nekkoon écurie Balla Gaye ñëwoon ci suñu écrit noonu rek di entraîné di jàpp gars yi di daan jàpp gars yëpp tëral leen fekk mu mujjee ñëw entraînement laaj ne leen lan la parce bu ñu entraîné bu ñu bu ba pare dañuy samp ma laaj ñu ne ma écrit Balla Gaye la nekk après ñu ne daan na ñëpp mu futeeku maag waa ji bëri nañu presque lu mat ay 45 minutes kenn morom te maa ñëw ci écrit bi donc te période boobu dama ko mënoon waane waane goo xamante ni bul comprendre donc ni ñuy bëree waa ji yenn ma may nekk ci kaw di biijaka di bi tànniku mu sànni ma ma sam samay ñaari mbag génn ci affaire yooyu mu defaat ko pour la troisième fois ma sam sama mbagg sama poids ak poids am nag versew sama mbagg mu simeeku donc ma ko doon nëbb sama papa waa ba waa écrit bi si ma donc dem sama papa donc paa bi daal loolu la xamee damay bëri après mu tere ma ko quoi mais am na jour aussi tamit ñëw naa fii suñu koñ écrit Pikine Nord boobu ñoom boogaa ñoo fa nekkoon ñoom ñoom ñoom ñoom waa ñoom boogaa ñoom seex Ngiraan ñoom ñoom ñooñu jeune seen génération seen booy amoon benn mbapat bu amoon fii ci Ridis booy ñëw jàpp booy koñ bi yëpp daan man ba dama taxoon di seetaan nii rek gis ñu daan ñëpp ba ñaari booy yi nga xam te ñoo bokk écrit yi Pikine Nord seen booy war a daje ñoom ñaar ñu dem final te mënuñu bëre moo fa teeku bëre daanaat ñoom seen booy yëpp daan fa benn booy bu naan booy sëy euh, booy séeréer mooy booy menn benn booy bu tuddaat euh, booy sëy junior moom laa fa mujjël bëri bëri bu tàng daal ba final bi dafa mujjee yàqu. ba pat waaw mais jotuma dugg ci arène bi parce que paa bi moom ma tere woon. mais sama ci bàyyiwoon heure bii beneen affaire la. oui kon ko seen émission nay riir mu net nettali jaar jaaram yu bëri yoo xam si ni ay xale da ciy jaar ak yooyu macha allah dégg ngeen ko li mu wax ci wàllum njàng mi ak métier am na métier mu mel ni que métier lu am solo la te jamono yi ñu nekk nii euh, dañuy ñëw foofu laay sax duggee ci théâtre mu mel ni que métier mi nga nekk mooy théâtre ñi si ëpp amuñu métier. waa mais man nag yàlla dogal na bi may doog a def aar aw ma woon métier amoon naa métier sax mais dama ko booyoon côté parce que dama concentré woon ci aar bi de trop bëgg ko loolu nag mu nekk ci man ba tey jii may wax ak yow mais bi ma yàlla dimbalee ma xam ne léegi màgg naa nekk ci aar bi di dem ma nekk responsable xam ne léegi am na lu ma war am naa papa am naa yaay am naa ay mag raq donc war naa taxawee ci famille benn taxawaay boo xamante ni jaadu na ma soutenir paa bi parce que donc moom moom moom dafa jël retraite donc ma ma xalaat naa mën a dem liggéey teewul maa ngi ko ne sama aar parce que période boobu maa ngi xalaat fan laa war a mën a liggéey donc un daal laa xëy sama téléphone sonné euh, euh, aji sama raq bi moo demal Ngor boo demee ba rond Ngor am na Brioche Dorée bu nekk foofu nga woo Babacar Samb ci numéro bi jox ma numéro bi avant may dem bi ma demee ma woo Babacar mu génn mu ne a jege mën suba nga dem foofu nga xëy fa nii laa duggee Brioche Dorée bindu ma demande bindu ma dara noonu laa amee métier dugg ci mais bi ma ci duggee aussi tamit réccuwuma ko parce que bu ma ci nekkul woon ba heure bi noonu que aar bi léegi doxul daal doxul doxul na ma yàlla baal doxut ñi may seetaan aussi tamit nañu xam bu baax su may xew moo tax damay wax sama moroom jeunes yi ku ci def ku nekk ku ci nekk ku nekk di def théâtre donc amal loo ko booleel malgré théâtre métier la kenn ku ci nekk nag ak sa gis-gis kenn ku ci nekk ak sa philosophie na ngay gisee mais man laa wax su ma sañoon képp ku koy def ngay jeune ni man ak ku mënti doon boole ko ak métier parce que góor balaa baax bari métier. théâtre métier la lépp métier la parfois nga làmb fii doxut nga bàyyi dem làmb feneen man parfois damay dem liggéey liggéey bi du dox ma am spectacle dem joué ji am fa dara parfois théâtre bi du dox ma dem fee mu am fa dara donc góor bari métier donc li may conseillé gars yi mooy nañ ko booleeg métier exemple jël ko ci coronavirus bi à part télévision yi nii di dem nii gars yi def seen ay série ban comédien bu ñu xam moo fi liggéey donc amul woon métier looy dundale sa njaboot kenn liggéeyul kenn deful dara. donc à part ñi gën ci série ñu leen di fay majeure partie bi sama génération ñu xamul instant bi un franc yoruñu ko donc dafa métti donc dañ ko booleek dara quoi waaw. lan ma la booleeg théâtre. théâtre nag li ma booleeg moom compétition culturelle moo ma boole ak moom mais avant compétition culturelle dama doon seetaan saa neex donc ñoom bi ñuy doog a débuté pas bi ñu doog a débuté sax bi ñuy doog a gépp def seen ay cassette ay ay ay askanu lawbe ay làmb ji yooyu ay saa neex yooyu laa doon seetaan di ko seetaan di seetaan saa neex bëgg ko trop nag trop trop trop trop trop ba fii may wax ak yow ba àdduna jamono ñi kuy def théâtre xam ma xam ne dama bëgg Sanekh boobu ma koy jël sax dama koy boobu mooy joué dama koy jël donc par la suite noonu suñu ko ASC bi Gelawaar koñ bi doon def ay compétition culturelle Naar Fall ak Lamine Ndiaye doon dugg ci koñ bi di jël ay carte d'identité man leen du ngeen ma boole seen affaire yi ñu ne ma ay ca jox ma sa carte d'identité ma jox Lamine Ndiaye sama carte d'identité mook Naar Fall donc ñoom daal ñoo dem ba benn instant boo xam te ni compétition culturelle bi ñu ñuy dem di ko def noonu laa duggee ci art mais Sanekh laa doon suivre ba tax ma bëgg ko ba dugg ci te réccuwuma ko benn yoon ma bëgg ko loolu muy sama idole te billaahi wallaahi ak sama weeru koor gi est ce que xam ni li ñuy gisa man ak moom yëpp mosuma jàkkaarloo ak moom wax ko ne ko yow laa bëgg yaa ma dugal ci aar nangam ak sàngam peut bu seetaanee lii wala book ñenn ñi may seetaan dinañ xam li may dëgg la mais moom bu seetaanee lii dafay nekk ci moom surprise barki dem lañu déggante yàlla xam ne ne kàddu googu jugul ci man parce que man du question complexe du question dara dama bëgg a prouver ci théâtre d'après moom fi mu jaar ba ba ñëpp xam ma su boobaa nag a toog xam ni moom mooy sama idole ci te bëgg naa lu ma yàlla may ci théâtre ma bokk barke Seydina Mohamed malgré nag am naa ay cachet yu fi jot a jaar cachet bi ma mujjee am bi ma mujjee fay ci cinéma bi ñu doon def bi ma fayee ko cachet bi dama ci génnee benn part ne lii saaneex laa koy jox parce que moo tax moo dugg ci période boobu ma koy woo di ko woo di ko woo di ko woo mënu ma ko parce que période boobu dafa jàppoon déplacé naa ba fekk doom ji Sadia ak jabaru ak ak euh, euh, yaayu jabar ji wallahi azim ñu ne ma seexu génn parce que dafa nekk Thiès dafa nekk tournage donc après maa ngi koy woowaat jotaatuma ko te cachet boobu ba tey fu ma ko gis nii dinaa ko jox parce que moo tax ma am ko waaw li ci des nag moom paa beeg bi wala famille bi moom waaw jariñoo nañ ko moo tax ma bëgg naa. mu bi nga taxaw muy côté côté théâtre bi sa début gis na la comme ni nga waxee ginnaaw nawetaan théâtre après gis nañ la nga ànd ak benn troupe ñuy wax génération consciente sa relation ak génération maanaam sa ànd ak génération consciente lan la woon. waaw génération consciente nag Lamine Ndiaye moom fa yóbbu parce que dañoo yoroon benn troupe bu nekkoon bu tudd dëkkal sëkk bi bu nekkoon Pikine dëkkal sëkk bi tonton aada fii la nekkoon parce que moom taxawul troupe bi ñoom Lamine Ndiaye naafaal ñoo ko taxawal ay maam raq Mandumbe ñu dem ba benn instant Mandumbe ñëw ci troupe bi boobu kenn xamagu ko nii euh, ñuy liggéey ba benn instant am benn scénario bu ñu doon def ñu ne nañ dem jëli tonton aada tonton aada ñëw ñuy liggéey ci scénario bi mu am nu mu demee ah donc affaire yi tas donc Lamine Ndiaye jël ma yóbbu ma génération consciente ma dem fekk fa ñoom sëñ daam troupe boobu euh, Pape Diouf moo ko moo ko moom troupe génération confiance nekk ca Docane ma dem nag ñu jox ma fa cër bu mag falaa dem daaru mi fa la nekkoon sëñ daam Lamine Ndiaye troupe boo amoon doole ma dem nag am fa cër bu mag d'après sama talent li ma am ak li ma doon jàppale bàyyi naa sama kër man ay weer ay at dem dëkk foofu ca do 80 te amuñu dërëm dañuy xëy di dox ci troupe bi di dem di ñëw di dem di ñëw fu ñu masaan dem di jouer ji dañuy def ay tenue góor jigéen ñun ñëpp nduróole ko dox ci tali bi di dem di way di waay di way di way buñ daa par exemple bu ñu amee programme parcelle Pikine la ñuy doxee di tëgg di fecc ak suñu sabar ba egg parcelle boobu ñu ngi doon def promotion Pape Diouf ñu ngi doon def suñu promotion donc génération consciente mu jógi cat dugg ci ñoo def la souffrance affaire bi affaire bi tàqalikoo mais ci tàqalikoo nag bu ma méttee ah. parce parce que tellement ah, moom ñëpp ñëpp Sénégal yi nee na ñëw yaa tas bi non sénégalais bu ñu waxee loolu dañuy wax la neex parce que ñun ñu nekkoon ci biir troupe bi ñoo gën a xam li fa nekk donc sénégalais yi ñoom donc wax rek la def donc mënuñu nekk ci biir troupe bi sénégalais yi nga xam te ni daaw ba gën a maa tax ci troupe bi te ñoom bu ñu ko waxee teguñu ko fenn xamuñu lan mooy problème ba nii France yow yaa nekk nekk kii bi yaa joué rôle principal bi yaa ngi dégg affaire bi dox nga commencé changé changé entourage commencé affaire yooyu commencé ñu lay woo répression ñëw commencé naan affaire bi man la imposé loolu moo tax troupe bi ñoom ñi may seetaan sëriñ daam mi may seetaan mi yoroon troupe bi daaru mii seede la barke alxuraan loolu musul nekk sama xel man ay affaire yu saar musul dox sama bopp man ba nii may wax ak yow damay dox ci mbedd fàtte ne boobu ci jëm boppam dafa am lu taxoon ma jóge woon ci troupe ba lu tax ma jóge ci troupe ba que période boobu dañoo dem ba benn instant boo xam te ni dañ ma doon jëndee ak troupe bi doon ma bi di ma def ay affaires yoo xam te ni man comprendre moon ak cër bi ma ca doon am ak sonn gi ma ci doon sonn yàlla mi ñu tim xam na ko donc ma dem nag ba xam ne affaire yi demetul noonu dama daa ñëw sax répétition ñuy répété ne am spectacle ma gis na man li ma mën a def non ay boy ndaw la jëli yu nekk ci koñ bi ñoo xam defuñu théâtre di leen joué loo xam te ni kenn xamu ko man mënu ma ko supporter te mu wóor ma ni lii may def nii mën naa ko donc nag rôle kenn du ko xeeb mais man dama bëggoon liggéey bi jaar yoon mais nañ doon doxalee dama doon xam ne liggéey bi jaarul yoon parce que boobu da a ñëw répétition 15 booy boobu ñu daa jël di teg sama kaw booy boobu sax xamu ko joueur football katu nawetaan la woon kade dañ koy dem jëli booy bi fekk ma fa ñu wàccee ñëpp répétition ma ñu ne kaale ñu répété ñu jël booy bi répété loo répété loo kii répété loo kii man ma toog te ñëw fa 14 heures jiitu ñëpp ñu koy def ay semaine may ñëw ñu koy def ay semaine may ñëw garaawul damay muñ di ko def ay semaine may ñëw mais ma dem ba xam ne affaire yi daal léegi bu ñuy répété dañ may bu booy bi di joué sax dañ may xool di ma ree di ma kookali ma ne noonu nag lii comme liggéey bi dafa am naa féq noonu dañ koy teg ci yoon ne leen yéen ñëpp da ngeen arrêté répétition bi barki yonente bi génn leen salle bi kenn du fi répété parce que période boobu maa ngi jàpp sama forme xaw a bari tuuti tuuti doole yooyu ñoom ñëpp ñu bàyyi woon ma xel man leen génn leen kenn du fi répété gaa yëpp génn man leen suba damay teel a ñëwaat bu ngeen répété ma tas ko noonu laa def ba tas répétition yi kenn répété tu fa parce que dafa demoon ba am ay affaire danaa féq noonu la mbir bi demee woon par la suite ma toog ñoom bi ñu demee ba xam ni dëgg la billaahi wallaahi watallaahi dañoo déplacé wu ñëw sama kër baalu ma àq di ma jéggalu pour ma ñëwaat répété ci tur bi man leen garaawul amul problème nañ ko teg ci dëgg rek parce que man théâtre laa xam moom laa bëgg ma commencé waat di répété waat yàlla mi ñu tiim xam na ko te bu ma commencé waatee di répété heure bi ma daa ñëw laa daa ñëw changé wu comportement changé wu ma fréquentation man aw ma xarit léegi léegi léegi ci foofu la ñuy taxaw seen émission nay ré ñu dalal ki nga xam se ni moom moo di Adama Diarra mais Ada après foofu for nañ ci yow béykat ni nag bi nga xoolee ne yi commencé maanaam nekkoon nga seen xol ba nekkutoo seen xol da ngaa commencé dem ci bataille mystique bi nag aara aara dégg naa gars yi fa solo loolu nga ne après nga laal fa xaw ma am na koo fa xam nga li ma lay wax am na koo fa laal. non non bul bul wax loolu parce que boo xeloo ñuy seetaan dañuy mel man damaa mystique te du mystique man boo ma xoolee sama yaram bi bambara laa mais gëj naa laa lay nit ñee ko wax de man ko de aara non waxuma ko mais nit ñee wax ne bataay mystique bi yow nga jël. xam nga xam nga gis nga weddu tuuma du ragal mais seetal sa der la période boobu ma lay wax Serigne Dame moo ñu jiite woon man Ama Ndaw Cheikh Diouf ñun ñeent ñoo nekkoon tëtu troupe bi doon dem ba ay Bambilor doon dugg fu ne ma bàyyi woon sama kër nekk ci ñoom ñu daal fanaan ci benn pantre boo xam ne largeur bi matul 1 mètre ñun ñeent ñoo daal tëdd bele la ñuy reeree bele 100 francs la ñuy dem doxi ba sonn ñëw jënd suñu bele toog donc période boobu ma lay expliqué nii ne loolu dafa am dafa tombeek sëriñ Dame feebar bi Serigne daam feebaree boobu ma bàyyi naa ba toog sama kër dama tuma xaw ma lu dëkk bi di tëdd sama kaw di nelaw ak sama métit yàlla mi ñu tiim seede na ko te lii may wax ñoom bu ñu ko seetaanee dañ xam li may wax Ama Ndaw yàlla ko yàlla yërëm bi période boobu amee Serigne Dame moo feebaroon feebar ba sonn ñu naan maa ko liggéey maa def nangam ak sangam ak sangam yow balaa ngay liggéey nit ku mu jàpp nga def ci sa bopp. man yëguma li coow lii lii ma lay wax nii dañ ma ko expliqué après te Serigne Cheikh Diouf moo ma ko expliqué Cheikh Diouf mi ngi nii dina ma seetaan yàlla te Cheikh juuf bi après dafa logé woon ci biir kër ga bi loolu amee. ma toog lu yàgg ñëwatuma ba sëñ daam tane ñu dem ci benn doomu Ahmed Khalifa Niass Cheikh Diouf moo ma wax lii doomu Ahmed Khalifa bi dëkkoon Canada Cheikh Diouf ama ah, ndaw sëriñ daam ñoo fa demoon sëriñ bi ne ko tooñ nga kenn koo xamante ni ci yéen wax ko sëñ daam ne ko boo demul baalu ju ko àq du baax ci yow sa feebar bii doo ci jóg moom bu seetaanee li may wax dina comprendre Cheikh Diouf bu seetaanee li may wax bu la neexee boo jógee fii demal ci ñoom jëli leen doomu Ahmed Khalifa Niass bi wax ko sëñ ne ko boo jógul ci lii boo demul baalu ju kii sa feebar bii doo ci jóg lépp Cheikh Cheikh Diouf moo ma ko wax ma tëdd sama kër benn comme benn un bon rek benn matinal sama buntu nekk fëgg may nelaw yeewu mu nekk sëñ daam dama tiit parce que xaw ma lu ko fa indi ak jikkoom donc période boobu nu mu tàngee ah ma toog mu ñëw na ma damaa ñëwoon pour baalu sa àq affaire yooyu. donc nañu ñëwaat ñu liggéey affaire yooyu kërëb kërëb mën na ko baalu àq ci lan mu ne ma dama ñëw pour baalu àq explique exactement li ma na ko amul problème parce que instant boobu li sëriñ bi wax la man ko suñu liggéey nii la demee mais billaahi wallaahi watallaahi ak weeru koor gi mosuma yëkkati juróomi dërëm man naan sax damay saraxal nit bay dem ci sëriñ di ko liggéey man damaa am dayo boobu li may defal nit mu jàpp ma def ko ci sama bopp tàq jóge fi benn yoon nii la mbir mi demee te li may wax nii Cheikh Diouf moom ko xam nga man samay dëgg du ma ko nëbb te sama bàmmeel laa taxaw boo fi jógee mën naa la jox numéro Cheikh Diouf nga dem jëli ko nii la demee seen émission nay riir la SBT Média tey ki ñu dalal muy Adama Diarra dégg ngeen fi mu fi fi émission bi toll yéen ñi xam yéen a SBT may wax ne abonné leen ngeen ba seen tous cloche notification bu ko defee yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen ci ànd ñun mais aada fi ñu taxaw rek mooy ginnaaw bi coolul amee après tuuti noonu da nga créé sa troupe muy sargal aar bi waat naa fa tuuti waat naa fa tuuti mais affaire yi boobu doxut parce que boobu sëñ daam aal gi mu am mais nit ku baax la de billaahi ëpp ma doole surtout ma ëpp ma ëpp ma jox ma li may dundalee sama kër nit ku baax la Serigne Dame nit ku baax sax man fréquenté naa ko nekk nañu ay at mais période boobu peut ni mu doon demee la xelum boppam kese ak fugg bi noonu la demee mais kon nee naa fa tuuti après arrêté ma xam ni daal donc demaat di bokk ci ay troupe ñu lay waxal nangam ak sangam ak sangam te période boobu kasetu aadama ak awoon dox na dox boo xam te ni amoon naa ci troupe trop sax. man garaaw jaru may dem ci ay di créer ay troupe wala may dem bon safur laa di dem ci ay troupe jàmbur ñu lay limal comme yu demee nii toog naa xalaat ko nag xalaat ko bu baax ma ne comme yàlla dogal na aw ma xam-xam ci métier mi garaaw naa yor sama yëf bopp parce que la te sama aar defewu ma ko fi ma fi ma déparé sagal aar bi ñun ñëpp ñu toog ma woo booy jeune koñ bi koñ bi ñi fi nekk ñu ñëw taxawal sagal aar bi donc sagal noonu la demee bëgg am sama yëfi bopp pas bëgg am sama yëfi bopp jiitu ko wala a uti xam-xam bi mais yor sama yëfi bopp kenn bañ maa dégg ci dara man noonu laay doxee donc Sakal Art bi sosu ba nii may wax ak yow di dox ay jéego yu am solo yoo xam te fii ci wàllum théâtre kenn mëntu ko cee génne teewul dem uti ñoo xam te ne xam nañ ci wàllum technique théâtre ñuy ñëw di ñu former ci domaine boobu. teewul aussi man tamit may génn di dem di defee ay formation yoo xamante ni dem naa di ci am ay technique gu théâtre dajale ak sama bopp ba fii may waxee yow nii fii may wax ak yow nii am na ñoo xam te nii dañuy ñëw ba tey di ñu jox ay technique u théâtre mooy théâtre kenn ko mokkal donc technique de base yi ci la bokk waaw Sagal Art bi noonu la juddoo muy kon ne di dem ba nii may wax ak ñuy demal suñu bopp kenn ñu ci nag. bi ngeen ñëwee léegi Sagal bi ñaata ñaata pees ngeen def. bon def nañu ay pièces yu bari yoo xamante ni donc ñun suñu suñu ay production ba léegi nii may wax yow mi ngi ci mais production yu am doole donc ay sketch la ñuy def de petit à lu ci mel ni Kër Paa bi ah boo duggee ci YouTube bi Kër Paa bi di ko gis ku ko ñi ko seetaan ñëpp apprécier nañ te li may wax na gars yi cliquer Kër Paa bi ñu xool ñun dañuy bëgg di liggéey liggéey bu am qualité bëgguñu di liggéeyantu nii di génn nit ñu di ñu ay jépp di ñu xam te ni ku ñu seetaan macha allah di xam ni sagal aar bi ñëw na ñun programme bu ñu bokkul du neex yàlla xam na ko dem nañ ci période boo xam bu ñu lu ñu bokkul lu neex léegi la rek ah yeneen ak yeneen ñëw fi def nañ ci briser le silence ah ci violence faite aux femmes et aux filles Pikine gépp seetaan nañ ko acteurs culturels yu mag yëpp seetaan nañ ko gis nañ film bi ci niveau cinéma loolu du théâtre lii de cinéma laa la wax ñu sous-titre ko version bi français ci violence base sur le genre affaire bu am doole ça fait quatre ans ak léegi nii may wax ak production mi ma denc mayu ma ko kenn lebalu ma ko kenn démarché naa TFM gis nañ ko bëgg nañ production mais liñ ma proposé baaxul ma jëlee ko lañ ma proposé tamit baaxul ma teewaat sama production def nañ fi Aïcha ay yoon yoon film Aïcha boo xam te moom ay gàllankoor ñoo koy téye ma ci dara donc waaw def nañ def nañ def nañ de def nañ waaye donc brisel séance bi ma lay wax ay kàngamu théâtre ñoo ko seetaan Leyti Fall kenn du naataable nu mu mel ci théâtre moom bi mu seetaanee affaire bi dafa yéemu dem ba këram mu ne ku ko def lii man ne ko maas kasi ko moo ko réalisé mu apprécier amul benn critique bu ndaw bu mu ci génnee donc ci benn critique rek la souligné te loolu dëggantaan la parce que booy bi dañ ko waroon masqué ak deret original mais tamaate bi moo fës bon loolu la def nañ. technique la quoi faute technique la. technique la waaw mais mënut a ñàkk. ginnaaw bi nga xam ne tàkk nga ci la souffrance. affaire yooyu après écoupé maanaam nu ma ko mën a waxee sax mooy mooy tibbante tànk seen biir. xam nga fee dañu doon jiñ waaye nag après na gars yi jekku nañ defe nag aara dégg for naa ci yu bëri que ne aada la yëkkatee ko ndax gars yi laaloon nañ <laughs> waaw loolu moom dëgg la xam foo information boobu yàlla ëpp na six mois yoo xamante ni tëdd feebar sama côté bi ma mel ni ko ABC mënu ma jug mënu ma def dara suñu waa kër ñoo may yëkkati sama raq bu jigéen bi aji ma ko ci ma ko ciy ñaanal bu baax parce que feebar bi soon na ci ak sama benn xarit bu ñu naan Amadou Fall ñoo may jàpp sama mag bu góor badu ñoo may jàpp yóbbu ma hôpital yóbbu ci ay sëriñ parce que tellement non ñun ñun suñu métier mi billaahi wallaahi wa tallaahi yàlla moo ñuy dimbal rek mais ñi ci nekk damay bañ a utiliser moo dëmm rek waaye dëmm ñu tane na ma yàlla baal na ma ñi may seetaan nañ ma jéggal quoi gars dañ lay kar dañ lay kar lu metti sax li may wax ni am na comédiens yu bari yoo xam te ni yëguñu ko ay jafaal yëg na ko moom it mu sonn ci loolu di ma booleeg ay sëriñ ak lu ne. billaay wallaay man ku ma noon ku ma xoon dina jóg sax duma ko gëm du ko gëm feebar bu metti daaro mii may wax daaro yëg na ko. loolu sax est-ce deful sax ay trois ak léegi parce que weeru koor la tombé la daaro yëg na ko. ñu bari yëg nañ ko ci ay comédien mais majeure partie bi yëguñu ko ay Leyti Fall yëguñu ko ay Sanex mi may wax ñu ci bari yëguñu ko ñi ma gënoon a jege jege jege jege ñoo ko ñoo ko yëgoon mais sant yàlla la comme yàlla may na ma mu dund rek sama bakkan boobu laa xam nag bu baax du def kenn lu bon. moom mel ne seen métier mi tibbante tànk bi parce que boo xoolee te artistes yi da ngay gis macha allah ku nekk jékki-jékki rek ay affaire xale bu ndaw sax xale bu ndaw nekk ci yoon téye affaire bi da ngay jékki-jékki benn six mois nga jékki-jékki rek dootoo ko déggati. waaw mais loolu loolu ñi koy def nag gis nga ñi koy def sóoruñu seen seen seen bàmmeel sóoruñu suba mais buñ doon xalaat suba yamal xiyaam dina am dinañu bàyyi li ñu def te loolu jar ko gis nga yàlla dafa boole ay yàlla dafa séddale ay mbiram nu mu ko neexee ku nekk ak la mu la may donc nit ki nañ ko nangu nañ ko nangu li ko yàlla may nañu bàyyi yooyu ñuy def te dafa am dafa am de li may wax nii damay wax bu baax pour nit ñi dégg ma li may wax nëbbatuuma làqatuuma parce que ci télé nekk di wax te nit ñi dañ koy seetaan man interview yu bari dama ko doon bañ billaay wallaay ay chute yu bari ci sama feebar boobu jóg naa ay chute yu bari contacté ma bañ a wax mais liñ naan wax bu jotee rek jot na dafa am mënumbe mii may wax ak yow yow mii seede nga jàpp nañ ko fi jàpp boo xam te pourtant melul boobu mënumbe fiwul feebar boo xamante ni famille ñëpp dañoo tiit billaahi wallaahi mënumbe yaram bi yëpp neewi di génnee dëtt foo laal dëtt génn fa bi mu ko yëgee par rumeur laa dem seeti ko bi ma ko seetee wallaahi azim li tax ma jàpp ko ba tey dama dugg seen biir kër famille ñëpp di jooy ñii di tiit ñii di jaaxle parce que foog na ba ne toogal ma toog mu ne yaay jàpp leen kii sama xarit la jàpp leen ko sama xarit la jour boobu sama rongoñ da doon këpp nii comme ndox te dañ ko fi képp te boobu pourtant nii man li may wax nii nama ma yàlla baal na baal sax moom ci ni ma donc man may wax nii li may wax pas man sax yooyu gars yi daf amul njariñ parce que mën numbe mii mën Sidi Samb na ma baal nag na ma baal ci li may génnee sa këram parce que damay jël exemple parce que lu amul seede baaxul lii man maa ko fekkee boobu xamuñu ko comme Madoumbe nii boobu deful Madoumbe gars yi képp nañ ko fi képp bu metti boo xamante ni Madoumbe billaahi wallaahi wa taalaa yaram bi yëpp dafa neewi yaram bi yëpp neewi Sidi neewi baron yaram bi foo laal dëtt la dëtt day génne dëtt seen waa kër tiim ko di jooyoo di jooy parce que tellement génnee nañ seen xel ci moom parce que ni ñu jàppee Madoumbe affaire ko feebar métti na ma man ma dem seen kër boobu tuddul ma numbe bi ma demee dugg seen kër di ko seeti ma gis waa kër gi toog di ko tiim di jooyoo ma dugg si mu a ma toogal moom mi ngi wax di jooy mu ne yaay jàpp leen kii sama famille jàpp leen kii sama xarit la sama di wax bay jooy barke alxuraan ak sama koor gi man jour boobu dama doon jooy comme xale bu ndaw sama rongoñ di génn looloo tax ma jàpp ko ba tey kàddoom googu dafa foor nekk ci digg feebar nekk ci digg feebar gars yooyu ñu def amul njariñ man def nan ma ko donc nga gis benn ndaw boo xam te ni yàlla may na ko lu mu koy may mu nekk ci yoon di dem lan lañ koy kare yàlla li ma may mayu ko yow li mu la may mayu ko keneen ak keneen te billaahi dafa am ci métier mi dafa nekk gis nga ñun gars yi ñun dañuy suturaante suñu biir dëgg la sutura baax na mais dafa am yenn yoo xam si ni il faut que wax pour mu jógee ci métier mi parce que àndut ak loolu nit la ngay defal nit muy yàqu carrière am wala mu léegi yooyu ñuy def buñ ci deewee lu ñuy wax gars yi nañu sóor seen bàmmeel suba yomal xiyaam dafay am man li ma naqari ci métier mi dafa bari sut internet yu bari bu ma jógee feebar contacté nañ ma damaa bañ parce que wax jotagul woon léegi nag damaa ibbi samay porte parce que métier bi nu mu mel nii donc il faut que ñu dénoncer ñi nga xam te dañ ciy def naka su dul noonu pour boo ko defee ñu mën a changer suñu métier mën a dox boo gisee art bi ñenn ñi bokk ñu génération bi majeure partie bi wala yenn yi doxul yenn yi la. ibbi naa sama porte chute bu ma woo billaahi wallaahi dinaa ci wax loo xam te ni dëgg la te du ma waxantu du ma waxantu nañu bàyyi yooyu ñuy def. nañu bàyyi liggéeyante bi nga xam ne moom moo ci nekk gis nga li may wax ne am na ñoo xam buñ ko seetaanee dañ naan xoolal dof bi da waxati dof bi nangam a nangam parce que métier moom mel noo xam te ni boo ci nekkee nit ku dëggu dof lañ lay boole yow dañ lay jël boole la ca dof ya yàlla mi ñu xam na ko yow li may xam nga ko parce que au moins dund nga ñun même bu dee ñetti fan te àdduna xam nañ la donc yooyu la def nañu bàyyi yi def. man aara xaw ko de seen émission nay ñu daal aar ma jara aar ma jara man xaw ma ci li ngay wax daara fi ne nii man li ngay wax nii fi ne nii li ngay wax fi ne nii mi ngi mu leer mooy yow parce que fan far ci yu après yow ki laaloon yow dem nga ba xam ko mais ba tey ba tey waxoo ko dara bul ne li may wax ne xamoo dara parce que tey journaliste. dama dama dama ne xaw ma ci li nga wax xaw ma ci dara. amul problème parce que journaliste nga d' accord dinaa comprendre fi ngay waxee. mais li ma wax nii dafa nekk man lu ma nit def baal naa la lu ma nit def moo xam lu bon la wala lu mu mënti doon jéggal naa la te yàlla tax parce que damay sóor sama bàmmeel sama yaay dafa ma ko wax bu am solo. billaahi wallaahi wa taalaa ne ma bul def nit dara bul net bul loo def nit di nga ko gis waaye jógal ci sa bopp. man la du may def nit dara parce que man dama bokk ci famille bu baax famille bu noble famille boo xam te ne ay wàlliyu lañu sama maam Basiirou Badji koo xamul dégg nga ko bu ñuy wax alxuraan kookoo tax ñu naan alxuraan ñun ku ñu xamul fii Pikine dëgg nga suñu suñu maam ay toj-toj yi mu fi def wala jaroole yi mu fi def ci wàllum alxuraan su ma nee toj-toj nag du question ay bêtises sama maam toog na ci mbaar di jàng alxuraan maam Basiirou Badji ba mbaar ma tàq pour te dire kaamil ba des fa kon ñun bu ñu neexee def lu ñu neex mais du ñu def yooyu. parce que ay nit yu baax lañu lu ma waaye def nag jéggal naa te yàlla tax waaye yàlla dina leeral ñëpp donc ñooñu di ma def yooyu fu mu leen yóbbu te dama leen a gis barki alxuraanu karim ci sama ñaq laa leen di dundalee man sant yàlla la nañu bàyyi yi ñuy def nañu bàyyi yi ñuy def liggéeyante beeg yi nii jaru ko àdduna ku nekk da ngay rek bis bi nga ci am wala sa wërsëg nit mënu ko lekk alaa kulli aal sa wërsëg balaa ngay dee di nga ko lekk am na loo xam te ni ku ko waxu danga nga koy joxoñ te gars yi dañoo boo waxee ñu naan non ñun ay comédien lañu bu ñu wax léegi ñu ay comédien lañ ba benn instant bu ñu amee luñ ko wax bu ñu gisee luy yàq suñu métier mi duñ ko wax dañ ko war di wax dañ ko war di wax ñu koy def ñu leen ñu naan ñii la pour ñoom ñu koy xam ne ñii ñooy yàq suñu métier bi ñooy def yenn yi man moom samay dëgg du ko nëb parce que métier mi ci boppam nit barki alxuraanu karim man damay dëggu ba keroog may dee. yow seen métier mi tey li ko yàq lan la li ko yàq lan la. li ko yàq liggéeyante bi ci la bokk. muy benn li ko yàq ñi nga xam te ne dañ ciy nekk di jàpp suñu xale yu jigéen di di tëddee di def naka su bon ñoo ngi ci. seytaane yi na ma yàlla baal ngeen baal ma ñi may seetaan di dem di defe ay yëfu naa féq ñoo ngi ci yooyu yëpp li ko waral xam nga lan la bëgg a feeñ ci tele bi bëgg diw daf ma xam bëgg a wéeru ci nit yooyu mooy yàq métier mi. ak liggéeyloo nit ba mu ñàkk sonn yóbbu ko ci benn film ñu jox ko kase nga dem li jënd projet boobu mu am ci vingt cinq mille nga jël junni jox ko ko yooyu ñuy def nan ko baax. dafa bari li koy yàqaan te li may wax ni waxantuwuma li may fe li may wax nii ñi may feetaan nekk ay comédien nekk ay nit yu dëggu laa wax wax ma ñu dëggul ay nit yu dëggu bu ñu feetaanee li may wax nga xam ne li may wax dëgg la te duñ ma ci mere li may wax ne interview bii nii ni li may wax nii ñi ma arrangé wul day xool suma génnee dañ may mere dootuñu ma tudd wala du ñu mu nuyu ma man sama yónnee ko ci ñooñu man su ma ñëpp su ma ñëpp seen seen émission nay riir fi ma bëgg ñu taxaw seen émission nay riir ñu daal ki nga xam ne moom moo di aar mu jara nekk uh, fii nga xam ne moom moo di sarga aar bi diwaan Pikine mais aar fi ma bëgg ñu taxaw mooy dégg naa nga wax sànq waxu seetaane nga baal ma si kàddu gi nag for naa ci béew bëy am na ñu bëri nee nañ yow moom fii tur yëpp yaa tas jaxase wax fii wax fii léegi sax yëmatoo ci léegi sax da ngay jëlee fii ay information alhamdulilah rabil alamin maa ngi sant yàlla xam nga tax may sant yàlla sëgëm nit ñaa ngi may bàyyi xel rek di ma sóor ne man maay maay tas ay troupe yu nekk Pikine rek alhamdulilah rabil alamin mais man sama jëm bopp Pikine ba mu daj Pikine ba mu daj amul benn responsable troupe wala benn troupe bu la mës a wax ne jël naa sama tànk dëgg ko seen troupe dem di leen fréquenté wala ma leen di seeti man. ñàkkee ma fay boole boole ko boole ko sàcc seen ay idée <laughs> waaw aw ma sax jot boobu man troupe bu ma dem dañ maa woo troupe bu ma dem te Pikine gii ñu nekk. barki alxuraanu karim ak sama weeru koor gi bu dee li ma wax du dëgg yàlla bu ma fanaan sama bàmmeel laa taxaw man su ma jógee dem ci troupe séq naa kooku loolu te balaa may dem ci troupe danga may woo ma ñëw fa. mais sol sama daal uniquement ni jékki am envie dem li gars yi def naan damay bett du ma ko def xalaatuma ko troupe Pape Sène arko nekk dama fay dem parce que Pape Sène sama waay la mais balaa ma fay dem daf may woo. na ma ñëwal am naa benn affaire bu war a taxawal nangam ak sàngam ñëwal nga xool ma déplacé wu dem xool. parce que boole na ma ci boppam mais à part ça fii amul benn responsable muy Pikine di Guédiawaye du Rufisque fu mu mënti doon fu troupe nekk ne ma mës naa ñëw seen troupe seet si leen te woowuñu ma ba ci Guédiawaye troupe yi ma fa doon dimbali di leen jàppale ca la ma jot a am xas mën tuuti ñoom ñoo yëkkat seen téléphone woo ma taxawal nañ nangam ñëwal may dem di leen ci bi ma demee ba xam. li tax wootuñ li tax wootuñ la saa yu la wooyee boo ñëwee loo fekk ci lu baax nga jël ko yóbbu ko sa tur nga naa sañ ak fit gu toll ni seede yàlla man du ma du ma du ma def yooyu du ma du ma def yooyu. yii <laughs> sama waa tur bi la gis nga ko sama waa tur bi la naa ko naa ko sama pare amet Kobar la moo may woo comprendre nga. sàcc gisuma appel bi de. non mi ngi nii mi ngi nii na ko gars yi gis Ahmed Kobar la sagal Kobar Ahmed Kobar la yaa ngi dégg. tur bu ma dem dañ maa woo te tur bi yooyu may dem ñu may woo suma ma liggéey yow ba xam ni man fi ma li ma bëggoon a jàppale ak yow jàppale naa la damay dem samay lu ma fay defaat leneen man li may gis nii. may nekk ci métier bi nekk comédien kenn xamuma siiwu ma fi ni fi nit ñu siwee amuma fi li fi nit amul mel ma fi ni fi nit melu sol ma fi li fi kenn solul mais damaa diñ sama bopp du ma dem fuñ ma woowewul du ma dem fuñ ma invité wul du ma ko def fu ma dem dañ maa woo comme ma invité wul du ma dem. léegi cooli cooli sa digganteek sa digganteeg sa neex cooli ba maanaam lu xew Pikine jékki-jékki ñu ne lii ma nga ceet ñu ne aarama jara moo ko fi yóbbu. xam nga loolu. loolu ñuy wax dañuy wax rek man Soleil Levant barki alxuraan man maa leen bëggal sama bopp grâce à Sanekh moo tax ma dugg ci métier te Soleil Levant ñëpp laa bëgg man. te damaa am ak ñoom ay relation yu baax te kaay wax la nag li coow li bari bari bari Sanekh laa ciy dégganteel Sumbulu maire Ndeye Kumba Abi Diagne Cheikh Ndiaye benn yoon lañu ñu mës a déggante xaw ma ñaari yoon te bopp bi jabar ji gaañoo la ma woo ko jaale ko ko Aziz Niane mësuñu déggante. yaa may dégg bu baax li ma la wax sama ay xarit Maar Ndiaye ak Cheikhouna jóge nañ fi dem seeti leen Thiès di ko yóbbul teraanga ci wiiri wiiri wallahi azim ñu toog seedeel ma fa seede yu rafet ba ci Aziz Niane te ñu gisee Aziz Niane benn yoon la ñu mës a gisee te loolu yàgg na wiiri wiir daawagul buntu TFM lañ daje. boobu xamante wuñ dañoo daje nii rek ma ne ko grand ça va maa ngi lay ziar Adama Diarra laa tudd artiste comédien laa dëkk Pikine mu doon wuyu téléphone. nit ku baax barke alxuraan karim mu mu nekk mu doon euh, waxal maa ngi lay woowaat léegi te boobu xaw ma gisante ma expliqué ko dafa am benn production bu ma doon indi fii nangam sangam expliqué ay détails mënu ma jox ma sa numéro suba nga ñëw fii ñu gis affaire yooyu noonu laa amee numéro ci jamono yooyu la ñu a déggante téléphone man ak moom ba léegi saa neex laaj ëpp lu may déggante bi ma ko mujjee jot rek barki démb la te avant boobu def nañ ay lu yàgg gisante wuñu li tax loolu nit ñi di ñaaw njort parce que dañuy bañ ànd boo xam te ne wala boo bëggee leen di wax la te su ma leen parce que nit ñi xam nañ ne dama am ak ñoom ñenn ñi relation donc ñu ci wax ay wax yu ñaaw te dégg naa nit wax ci. wallaay azim li nga wax ni nit wax ci ne solo le vent ñoom lu ñu ku leen di fenn aar ma jaral nañ ma baal ci kàddu gi te ko wax mag la jëmm kilifa maa ngi toog ñu bokk benn répétition aar ko barki alxuraanu xam nga ni naan dañuy dàq ginaar wax seen soxlaw dàq na ginaar mag moom ba wax soxlaam wax man ma toog fi ma toog xam li ma xam boolewuma ci wax boolewuma ci saqat mett na ma mais du ma ko jàppee mais waa Soleil Levant laaj leen ñoom ñoom ñoom nañ ma baal sax ñàkkuñu fayda ñàkk fayda gu toll nit di leen nettali te man xanaa ñàkkuma fayda ñàkk fayda gu toll ni di yëkkat sama téléphone naan maa ngi nettali nit non su boobaa ma xam ni santatuma jara yooyu doxul sama diggante ak ñoom teeku ma kaay ñoom. seen émission nay riir la daal ki xam se ni moom moo di Adama Diarra bu sargal aar bi ma leen wax ne kon leen ngeen abonné ci seen seen YouTube SBT Média ngeen ba seen tous cloche notification léegi fi ma bëgg ñëw fi nag mooy cool yi fan yi dégg nga sa papa Ba Eli ak ki nga xam ne moom mooy sa idole Sanekh cool yi bi nga déggee bi nga dégg affaire bi nana la def. waaw choqué na ma nag tuuti nag yàlla xam na ko. billaahi wallaahi seex message naa ko démb waaw démb laa ko message. donc métti na ma nag tuuti mais métit bi mooy xam nga mooy lan donc internet boo duggee lépp a ngi ci suñu papa Baye Ili maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati fa mu tëdd te delloowaat ko ci ay sagoom parce que li ko dal metti na te billaahi wallaahi wa taala li ko dal man mii di waxee ak yow dafa ma am naqari parce que man bëgguma kuy def théâtre am ay yenn métti di ba ay internet di ko yëg ak nit ñi di ko yëg ñuy ñaan dimbal daf ma metti après ma dugg ci YouTube bi gis Cheikhou di wax bay jooy parce que tey damay mal placé pour ma wax ci mais da ngay wax nit ku nekk sa àqulaay taala sa tiraay bàmmeel parce que man su ma deewee sama bàmmeel saa neex du ma fekk déglu naa audio bàyyi ili Sénégal yëpp déglu nañ ko donc erreur la rek erreur la suñu papa ji def donc Cheikh comprendre na ko mais Cheikh ku ko xam dëgg xam ni yooyu du ay affaire am nekkuma fi nag pour pour pour pour seedeel ko nekkuma fi pour daal damay wax jikkoom jikkoom yàlla mi ñu tim xam na ne billaahi wallaahi watallaahi man sama jëm bopp man gis naa ay magum aar yoo xam ni dimbali na leen te nit yëgu ko. barki alxuraanul karim mu dimbali leen ci alalam ci ay feebar yi leen di dal ay mag mu jël leen yóbbu leen yëkkati alalam di ci def taal otoom di ci def te kenn xamu ko wallaahi azim barki alxuraanu karim kon kooku néeg naa def loolu këram tëju ko comme ay da ngay ñëw comme yenn artistes yi ñuy def ay kookal ay jëlal rendez-vous amu ci da ngay ñëw ibbi këram waa këram teeru la bu baax. donc man li may wax nii li may wax paa man sax yooyu gars yi daf amul njariñ parce que Manoumbe mii Manoumbe Sidi Samb na ma baal nag na ma baal ci li may génnee sa parce que damay jël exemple parce que lu amul seede baaxul lii man maa ko fekkee boobu xamuñu ko comme mënumbe nii boobu deful mënumbe gars yi képp nañ ko fi képp bu metti boo xamante ni mënumbe billaahi wallaahi wa taala yaram bi yëpp dafa neewi yaram bi yëpp neewi Sidi neewi ba ron yaram bi foo laal dëtt la dëtt day génne dëtt seen waa kër tiim ko di jooyoo di jooy parce que tellement génnee nañ seen xel ci moom parce que ni ñu jàppee mëndumbe affaire na man ma dem seen kër boobu tuddul ma numbe bi ma demee dugg seen kër di ko seeti ma gis waa kër gi toog di ko tiim di jooyoo ma dugg si mu a ma toogal moom mi ngi wax di jooy mu ne yaay jàpp leen kii sama famille jàpp leen kii sama xarit la sama di wax bay jooy barke alxuraan ak sama koor gi man jour boobu dama doon jooy comme xale bu ndaw sama rongoñ di génn looloo tax ma jàpp ko ba tey kàddoom googu dafa foor nekk ci digg feebar. nekk ci digg feebar gars yooyu ñu def amul njariñ man def nan ko donc nga gis benn ndaw boo xam te ni yàlla may na ko lu mu koy may mu nekk ci yoon di lan lañ koy kare yàlla li ma may mayu ko yow li mu la may mayu ko keneen ak keneen te billaahi dafa am ci métier mi dafa nekk gis nga ñun gars yi ñun dañuy suturaante suñu biir dëgg la sutura baax na mais dafa am yenn yoo xam te ni il faut que wax pour mu jógee ci métier mi parce que àndut ak loolu nit la ngay defal nit muy yàqu carrière am wala mu léegi yooyu ñuy def buñ ci deewee lu ñuy wax gars yi nañu sóor seen bàmmeel suba yomal xiyaam dafay am man li ma naqari ci métier mi dafa bari sut internet yu bari bu ma jógee feebar contacté nañ ma damaa bañ parce que wax jotagul woon léegi nag damaa ibbi samay porte parce que métier bi nu mu mel nii donc il faut que ñu dénoncer ñi nga xam te ne dañ ciy def naka su dul noonu pour boo defee ñu mën a changer suñu métier mën a dox boo gisee art bi ñenn ñi bokk suñu génération bi majeure partie bi wala yenn yi doxul yenn yi la. ibbi naa sama porte chute bu ma woo billaahi wallaahi dinaa ci wax loo xam te ni dëgg la te du ma waxantu du ma waxantu nañu bàyyi yooyu ñuy def. nañu bàyyi liggéeyante bi nga xam te moom moo ci nekk gis nga li may wax ne am na ñoo xam te ni buñ ko seetaanee dañ naan xoolal dof bi da waxati dof bi nangam a nangam parce que moom mel noo xam te ni boo ci nekkee nit ku dëggu dof lañ lay boole yow dañ lay jël boole la ca dof ya yàlla mi ñu tim xam na ko yow li may xam nga ko parce que au moins dul ñun même bu dee ñetti fan te àdduna xam nañ la donc yooyu la def nañu bàyyi yi ñuy def man aara xaw ma ko de seen émission nay réew ñu daal aar ma jara aar ma jara man xaw ci li wax daara fi ne nii man wax fi ne nii li ngay wax fi ne nii mi li ma bëgg mu leer mooy yow parce que fan far ci yu après yow ki laaloon yow dem nga ba xam ko mais ba tey dara bul ne li may wax ni xamoo dara parce que tey journaliste. dama dama dama da la xaw ma ci li ngay xaw ma ci dara. amul problème parce que journaliste nga d'accord dinaa comprendre fi ngay waxee. mais li ma wax nii dafa nekk man lu ma nit def baal naa la lu ma nit def moo xam lu bon la wala lu mu mënti doon jéggal naa la te yàlla tax parce que damay sóor sama bàmmeel sama yaay dafa ma ko wax bu am solo. billaahi wallaahi wa taalaa ne ma bul def nit dara bul net bul loo def nit di nga ko gis waaye jógu ci sa bopp. man la du may def nit dara parce que man dama bokk ci famille bu baax famille bu noble famille boo xam te ne ay wàlliyu lañu sama maam Basiirou Badji koo xamul dégg nga ko bu ñuy wax alxuraan kookoo tax ñu naan alxuraan ñun ku ñu xamul fii Pikine dëgg nga suñu suñu maam ay toj-toj yi mu fi def wala jaroole yi mu fi def ci wàllum alxuraan su ma nee toj-toj nag du question ay bêtises sama maam toog na ci mbaar di jàng alxuraan maam Basiirou Badji ba mbaar ma tàq pour te dire kaamil ba des fa kon ñun bu ñu neexee def lu ñu neex mais du ñu def yooyu. parce que ay nit yu baax lañu lu ma waaye def nag jéggal naa te yàlla tax waaye yàlla dina leeral ñëpp donc ñooñu di ma def yooyu fu mu leen yóbbu te dama leen a gis barki alxuraanu karim ci sama ñaq laa leen di dundalee man sant yàlla la nañu bàyyi yi ñuy def nañu bàyyi yi ñuy def liggéeyante beeg yi nii jaru ko àdduna ku nekk da ngay rek bis bi nga ci am wala sa wërsëg nit mënu ko lekk ala kulli aal sa wërsëg balaa ngay dee di nga ko lekk am na loo xam te ni ko waxul danga koy joxoñ te gars yi dañoo boo waxee ñu naan non ñun ay comédien lañu bu ñu wax léegi ñun ay comédien lañ ba benn instant bu ñu amee luñ ko wax bu ñu gisee luy yàq suñu métier mi ko wax dañ ko war di wax dañ ko war di wax ñu koy def ñu leen ñu naan ñii la pour ñoom ñu koy xam ne ñii ñooy yàq suñu métier bi ñooy def yenn yi man moom samay dëgg du ko nëb parce que métier mi ci boppam nit barki alxuraanu karim man damay dëggu ba keroog may dee. léegi yow seen métier mi tey li ko yàq lan la li ko yàq lan la. li ko yàq liggéeyante bi ci la bokk. muy li ko yàq ñi nga xam te ni dañ ciy nekk di jàpp suñu xale yi jigéen di di tëddee di def naka su bon ñoo ngi ci. seytaane yi na ma yàlla baal ngeen baal ma ñi may seetaan di dem di defe ay yëfu naaféq ñoo ngi ci yooyu yëpp li ko waral xam nga lan la bëgg feeñ ci tele bi bëgg diw daf ma xam bëgg weeru ci nit yooyu mooy yàq métier mi. ak liggéeyloo nit ba mu ñàkk sonn yóbbu ko ci benn film ñu jox ko kase nga dem li jënd projet boobu mu am ci vingt cinq mille nga jël junni jox ko ko yooyu ñuy def nan ko baax. dafa bari li koy yàqaan te li may wax ni waxantuwuma li may fe li may wax nii ñi may feetaan nekk ay comédien nekk ay nit yu dëggu laa wax wax ma ñu dëggul ay nit yu dëggu bu ñu feetaanee li may wax dina nga xam ne li may wax dëgg la te duñ ma ci mere li may wax ne interview bii nii ni li may wax nii ñi ma arrangé wul day xool su ma génnee dañ may mere dootuñu ma tudd wala du ñu mu nuyu ma man sama yónnee ko ci ñooñu man su ma ñëpp su ma ñëpp seen seen émission nay riir fi ma bëgg ñu taxaw seen émission nay riir ñu daal ki nga xam ne moom moo di aar mu jara nekk uh, fii nga xam ne moom moo di sarga aar bi diwaan Pikine mais aar fi ma bëgg ñu taxaw rek mooy dégg naa nga wax sànq waxu seetaane nga baal ma si kàddu gi nag for naa ci béew bëy am nañu bëri nee nañ yow moom fii tur bi yëpp yaa tas jaxase wax fii wax fii léegi sax yëmatoo ci léegi sax da ngay jëlee fii alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla xam nga tax may sant yàlla sëgëm nit ñaa ngi may bàyyi xel rek di ma sóor ne man maay maay tas ay troupe yu nekk Pikine rek alhamdulilah rabbil alamin mais man sama jëm bopp Pikine ba mu daj Pikine ba mu daj amul benn responsable troupe wala benn troupe bu la mës a wax ne jël naa sama tànk dëgg ko seen dem di leen fréquenter wala ma leen di seeti man. ñàkkee ma fay boole boole ko boole ko sàcc seen ay <laughs> waaw aw ma sax jot boobu man troupe bu ma dem dañ maa woo troupe bu ma dem te Pikine gii ñu nekk. barki alxuraanu karim ak sama weeru koor gi bu dee li may wax du dëgg yàlla bu ma fanaan sama bàmmeel laa taxaw man su ma jógee dem ci troupe séq naa kooku loolu te balaa may dem ci troupe danga may woo ma ñëw fa. mais sol sama daal uniquement ni jékki am envie dem li gars yi def naan damay bett du ko def xalaatuma ko troupe Pape Sène arko la nekk dama fay dem parce que Pape Sène sama waay la mais balaa ma fay dem daf may woo. na ma ñëwal am naa benn affaire bu war a taxawal nangam ak sàngam ñëwal nga xool ma déplacé wu dem xool. parce que boole na ma ci mais à part ça fii amul benn responsable muy Pikine di Guédiawaye du Rufisque fu mu mënti doon fu troupe nekk ne ma mës naa ñëw seen troupe seet doon dimbali di leen jàppale ca la ma jot a am xas mën tuuti ñoom ñoo yëkkat seen téléphone woo ma taxawal nañ nangam ñëwal may dem di leen fii bi demee ba xam. li tax wootuñ li tax wootuñ la saa la boo ñëwee loo fekk ci lu baax nga jël ko yóbbu ko sa sañ ak fit gu toll ni yàlla man du ma du ma du ma def yooyu du ma du ma def yooyu. <laughs> yii sama waa tur bi la gis nga ko sama waa tur bi la naa ko naa ko wuyu sama pare amet Kobar la moo may wo comprendre nga. sàcc gisuma appel bi de. non mi ngi nii ngi nii na ko gars yi gis Ahmed Kobar la sagal Kobar amet Kobar la yaa ngi dégg. tur bu ma dem dañ maa woo te tur bi yooyu may dem ñu may woo su ma liggéey yow ba xam ni man fi ma li ma bëggoon a jàppale ak yow jàppale naa la damay dem sama lu ma fay defaat leneen man li may gis nii. may nekk ci métier bi nekk comédien kenn xamuma siwuma fi ni fi nit ñu siwee amuma fi li fi nit amul mel ma fi ni fi nit melu sol ma fi lu fi kenn solul mais damaa diñ sama bopp du ma dem fuñ ma woowewul du ma dem fuñ ma invité wul duma ko def fu ma dem dañ maa woo ku ma invité wul du dem. léegi cooli cooli sa digganteeg sa digganteeg saa neex cooli ba maanaam lu xew Pikine jékki-jékki ñu ne lii ma nga cees ñu ne aarama jara moo ko fi yóbbu. non xam nga loolu. loolu ñuy wax dañuy wax rek man Soleil Levant barki alxuraan man maa leen bëggal sama bopp grâce à Sanekh moo tax ma dugg ci métier te Soleil Levant ñëpp laa bëgg man te damaa am ak ñoom ay relation yu baax te kaay wax la nag li coow luy bari bari bari Sanekh laa ci dégganteel Sumbulu maire Ndeye Kumba Abi Diagne Cheikh Ndiaye benn yoon lañu ñu mës a déggante xaw ma ñaari yoon te bopp bi jabar ji gaañoo la ma woo ko jaale ko ko Aziz Niane mosuñu déggante yaa may dégg bu baax li ma la wax sama ay xarit Maar Ndiaye ak Cheikhouna jóge nañ fi dem seeti leen Thiès di ko yóbbul teraanga ci wiiri wiiri wallahi azim ñu toog seedeel ma fa seede yu rafet ba ci Aziz Niane te ñu gisee Aziz Niane benn yoon la ñu mës a gisee te loolu yàgg na wiiri wiir daawagul buntu TFM lañ daje. boobu xamante wuñ dañoo daje nii rek ma ne ko grand ça va maa ngi lay ziar Adama Diarra laa tudd artiste comédien laa dëkk Pikine mu doon wuy téléphone. nit ku baax barki alxuraan karim mu mu mu nekk mu doon euh, waxal maa ngi lay woowaat léegi te boobu xaw ma gisante ma expliqué ko dafa am benn production bu ma doon indi fii nangam sangam expliqué ay détails mënu ma jox ma sa numéro suba nga ñëw fii ñu gis affaire yooyu noonu laa amee numéro ci jamono yooyu la ñu a déggante téléphone man ak moom ba léegi saaneex laa ci lu may déggante bi ma ko mujjee jot ak barki démb la te avant boobu def nañ ay lu yàgg gisante wuñu li tax loolu nit ñi di ñaaw njort parce que dañuy bañ ànd boo xam te ni wala boo bëggee nit rek wax la laa leen di nettali te su ma leen nettali parce que nit ñi xam nañ ne dama am ak ñeen ñenn ñu relation donc ñu ci wax ay wax yu ñaaw te dégg naa nit wax ci. wallaay Azim li nga wax ni nit wax ci ne solo Levant de ñoom lu ñu lu ku leen di fenn aar ma jaral nañ ma baal ci kàddu gi te ki ko wax mag la magum jëmm kilifa maa ngi toog ñu bokk benn répétition aar ko barke alxuraanu karim xam nga ni naan dañuy dàq ginaar wax seen soxlaw dàq na ginaar mag moom ba wax soxlaam wax ko man ma toog fi ma toog xam li ma xam boolewuma ci wax boolewuma ci saqat mett na ma mais du ma ko jàppee mais waa Soleil Levant laaj leen ñoom ñoom ñoom nañ ma baal sax ñàkkuñu fayda ñàkk fayda gu toll nit di leen nettali te man xanaa ñàkkuma fayda ñàkk fayda gu toll ni di yëkkat sama téléphone naan maa ngi nettali nit non su boobaa ma xam ni santatuma jara yooyu doxul sama diggante ak ñoom teekuma ñoom. seen émission nay riir la ñu dalal ki nga xam se ni moom moo di Adama Diarra bu sargal aar bi ma leen wax ne kon leen ngeen abonné ci seen seen YouTube SBT Média ngeen ba seen tous cloche notification léegi fi ma bëgg ñëw fi nag mooy cool yi fan nga sa papa Ba Eli ak ki nga xam ne moom mooy sa idole saa neex cool yi bi nga déggee bi nga déggee affaire bi nana la def. waaw choqué na ma nag tuuti nag yàlla xam na ko. billaahi wallaahi seexu message naa ko démb waaw démb démb laa ko message. donc métti na ma nag tuuti mais méttit bi mooy xam nga mooy lan donc internet boo duggee lépp a ngi ci suñu papa Ba Ili maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati fa mu tëdd. te delloowaat ko ci ay sagoom parce que li ko dal metti na te billaahi wallaahi wa taala li ko dal man mii di wax ak yow dafa ma am naqari parce que man bëgguma kuy def théâtre am ay yenn métti di ba ay internet di ko yëg ak nit ñi di ko yëg ñuy ñaan dimbal daf ma metti après ma dugg ci YouTube bi gis Cheikhou di wax bay jooy. parce que tey damay mal placé pour ma wax ci mais da ngay wax nit ku nekk sa àqulaay taala sa tiraay bàmmeel parce que man su ma deewee sama bàmmeel saa neex du ma fekk déglu naa audio bàyyi ili Sénégal yëpp déglu nañ ko donc erreur la rek erreur la suñu papa ji def donc Cheikh comprendre na ko mais Cheikh ku ko xam dëgg xam ni yooyu du ay affaire nekkuma fi nag pour pour pour pour seedeel ko nekkuma fi pour daal damay wax jikkoom jikkoom yàlla mi ñu tim xam na ne billaahi wallaahi watallaahi man sama jëm bopp man gis naa ay magum aar yoo xam ni dimbali na leen te nit yëgu ko. barki alxuraanul karim mu dimbali leen ci alalam ci ay feebar yi leen di daal ay mag mu jël leen yóbbu leen yëkkati alalam di ci def taal otoom di ci def te kenn xamu ko wallaahi azim barki alxuraanu karim kon kooku néeg naa def loolu këram tëju ko comme ay da ngay ñëw comme yenn artistes yi ñuy def ay kokal la ay jëlal rendez-vous amu ci da ngay ñëw ibbi këram waa këram teeru la bu baax. da point bi nga xam si ne nii euh, témoignage bi nga xam ne mi ngi koy def ci ki nga xam ne si moom moo di Sanekh waaye si digganteem ki nga xam ne moom moo di Baye Ely nga ne yow Sanekh xam nga ay mag ñoo xam ne mi ngi leen jàppale ci ci li nga xam ne moom moo di aar bi ah, c'est vrai man mi am naa ci am naa ci ñoo xam te ni xam naa leen ñoo xamante ni a yi dimbali na leen de barke ke karim dimbali na leen bu baax a baax a baax a baax te nit yëgu ko moo tax man bi ma bi ma bi ma gisee euh, ITV yi mu doon def donc di tuur ay xéwal donc daf ma daf ma sama yaram dafa daw daal parce que ñu ñu waxal la loo xam te ni dafa dafa metti parce que man mii rek dund naa lu mel noonu donc jox naa ci ay exemple sànq donc erreur la boo xam te ni suñu suñu papa daf ko def. Hmm? donc ma du ma jugé wóor ma d' après li ma déglu ci ci ci. wax ji boo xoolee aadama neexut wedd de parce que baa li mu wax dafa leer dafa ne woo ko moom mu confirmer nag mu confirmer ko moo tax affaire bi affaire bi neexut a kii a leeral de. waaw loolu laa lay wax nii que dadul dadul neex a dégg rek ah. parce que am na gis nga ñun am na am na nu ma ciy xuusee wala am na nu ma ciy waxee donc ñenn ñi rek ñi nga xamante ni mooy loolu dañ naan moom moom de dafa seytaane wala dafa nañ ma baal ci kàddu gi wala lu mu lu mu lu mu am moom relation ma tax or ko demeewut noonu. gis nga internet boo duggee loo bëgg gis mi ngi ci te déglu nañ audio yi nga xamante ne am na mi ngi paa bi wax na ko ak waa ji donc loolu du neex a mim donc li ma ci wax daal yàlla na ci yàlla def ndoxum sedd Cheikhou di ko gën a parce que loolu laa ko bind message ah donc na na na sant yàlla bu baax a baax a baax. gën a góorgóorlu te xam ni euh, yàlla jaam bi bu gën a bëgg rek lay teg nattu te billaahi ndaanaan la barke alxuraan ndaanaan la. wér ndaanaan mais cooli cooli kay la ñëw wér ak ndaanaan Sanekh moom moom moom loolu moom moom natt kenn nattablu ko si àdduna bi waaye suñu papa Baye Eli boobu koy ñaanal suñu borom fëgg boppam euh, ak mboolem koo xam si yaa ngi tëdd feebar euh, rawat na mais man dama seetlu yéen artistes yi en général maam dañu jékki-jékki rek dégg diw feebar na après si li carrière bi ngeen def yëpp après si ci ket rek lañ mujj. man nag loolu lu ma dérangé la parce que sànq wax naa la ko lu ma gën a naqari ci suma ci sama ci sama àdduna ci sama ay carrière aar man loolu ci la bokk parce que gis nga gis nga Sénégal euh, ñi fi am problème bari na te kenn du leen dégg bëgguma tudd tur ci mbërum làmb yi ñenn ñi ñu ngi ci ay difficulté mbëri saa maanaam képp ku siiw moom Sénégal moom fi ne nii képp ku fi siiw boo sa bopp day métti sax bu subaa journal bind na diw bopp a ngi métti. waaw léegi nag problème bi mooy xam nga man d'après ni ma ko gisee donc ñun kuñ fi génnal di kata rek wala di ñaanal ndimbal ñenn ñi majeure partie bi kenn du leen ko sant ñoom ñooy bëgg tur rek bëgg profité siwal information parce que ñun comédien li ma la wax sànq rek moo ci nekk dañoo yàqamte information pour nettali nettali yoo xam te ni ñun ñooy fësal yenn yi te bi laay ket yooyu daf maa naqari te ñun Sénégal war nañoo dépassé foo xam te ni nit yëngu na ci wàllum aar ba am lu mu am ba liggéey lu doy waar ci théâtre bi am fu mu toll wala mu feebar ñu koy ketal di ko ñaanal ñoon am nañ ministère de la culture mu fi jariñ man xaw ma sax turam te billaay wallaay xaw ma turam théâtre laay def xaw ministère de la culture xaw ma nu mu tudd comprendre nga donc ñun comédien nag war nañoo mën a jàppalante suñu biir di def ay aide sociale yoo xam ne aara aara li ngay wax dama ne yéen seen biir yéen a war a organisé wu yaa ngi dégg mais pas nga naan ministre de la culture xam nga tax parce que ministre de la culture maanaam pour formalité la yaa ngi dégg mais yéen ñi nga xam liggéey ci mbir mi yaa ngi dégg di am xaalis seen xaalis yooyu ngeen liggéey anam dama ni organisation mënta weesu arko yi am yaa dégg bu baax li ma lay wax man damaa bokk arko du question dama fi toogal arko di wax wala nangam a sangam arko association la boo xam te ni état Dakar reconnaître moom ay papier am comprendre nga arko yi kilifa yooyu noonu ñi leen di katal pourtant ci arko yi la ñu bokkoon. arko du question daf fee toog rek man d'après sama xalaatu bopp toogul ma fi benn arko waxul ma benn arko du question dañ fee toog rek nit dafa war a feebar rek dañ ko war a dimbali. jaadu na nag nit feebar ñu yëg ko dem dimbali ko ci suuf te kenn du ko yëg. jaadu na mais ministère de la culture non ñu ko fi tegee du même bu fekkente dafa nekk ci ay formalité wala ci ay wàllum këyit ak nangam ak nit da ngay mën sa nit. gis nga culture bi ñu ciy yëngu par exemple suñu papa Baye Ili no liggéey na ci théâtre Sénégal loo xamante ne nii warul am métit bi nit ñi toog di xaar naa dañ koy kettal ak wala dañ koy ñaanal ndimbal wala nangam ak sàngam pour lan loolu li mu def ci Sénégal kenn du koy naatable donc nit da koy delloo cër. maanaam li mu def ci aar moom ak li mu liggéeyal ci théâtre jaadu na bu boppam sax day metti balaa ñu koy yëgal média bi ñu koy gën di ay ketal ak nangam jóg def ci li mu war mu jaar ci ministère de la culture parce que moom moo fi nekkal culture bi donc nag yéen di def yëpp na ñëw. comédiens yi dem ku ci am sa ndimbal def ko te yàlla rek tax ñu bañ ko bësal mais nit ñi fii fi Sénégal toll dañuy def muy naa def pour def wala naa def pour nit ñi gis ma wala mu ut ci yooyu doxut. nga baal may aar man dégg naa ci ci ci far naa ci wu bëri théâtre kat yi à part siiw bi ci am nii génn ñu siiw ni affaire yooyu théâtre bi amu ci dara. waa ñi ci amul dara ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que niñ ciy doxee la bu fekkente ne dañ cee nekk bëgg ci jigéen rek nga ci am sànq maa ngi la koy wax sama biir wax am na ci mag ñoo xamante ne dama koy wax ah, parce que gis nga du man bu fekkente ne damaa nekk ci benn métier. gis métier mi day am ay yàqu-yàqu ma war a taxaw wax war a génn wax waxuma non maa ngi toog ci branche bi di koy fiyee te ñu bari loolu la ñuy def dañuy xam li xew ci métier mi war a leeral nit ñi war a génn leeral askan wi ñi koy def ñu wax leen ko ñu xam ko wala buñ jaaru seen ñoom ñu dégg xam ne ñoom ñoo koy def non duñ ko ba man mënu ma toog ci di ko fiyee du ko def nañu bàyyi yooyu ñuy def ñi ci amul dara ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que ay xale jigéen lañ ciy bëgg jigéen lañ ciy am tey da gis par exemple ni ñaa ngi ko xewee nii yàlla na ko yàlla doolil jàmm da ngay gis man li ma gis li ma gis ñànku bi bi bi muy doog a débuté carrière am avant muy am tur bi nii tur bi nii ñànku bi ma yéex naa kaa xam. bal bi billaay wallaay ñenn rek laa ko xamee woon mais xool ko tey fi mu toll maa ngi ciy gis ay nit yoo xamante ni barki alxuraanu karim wóor ma ni ñii biñ ko xamee yàggul te production ya ñuy bokk wóor na may wóor yàlla ni bu fi kaamil nekkoon ma dóor ci sama loxo new ma woow ci ñenn de am na ñu mu ci woo mais ñenn ñu ñoo ci dem dugal seen bopp donc est ce que ñooñu dinañ ci am dara man dama gis ne boobu bokk ci production wala ngay dugg ci dara toogal ba kii def production bi sentir na la hé woo maa la sentir nangam woo la bu ngeen mënee négocier ci contrat ngeen négocier na ko temps nga may fay mu fay la nga dem liggéey soo paree am ci dara nga def ko bu fekkente ni séq ngeen loo xam te mooy loolu garaaw nga dem joobal ko ko te yàlla rek tax nga teg fu mu war tegu mais bari ci suñu métier mi ay nit yoo xam te ni ñu ngi dugg ci ay production yoo xam te ni ñoom ñooy contacter ñu koy def te dërëm duñ ko ci am bëgg siw bëgg mooy li ma la wax siw la ñu bëgg man nag yàlla na ma yàlla dimbali musal ma ci siw ba xaalis man Adama Diarra sama principe. billaahi wallaahi ma dalee def théâtre yàgg na. ñii nga mais gars yi laajee da laajee ko mais <laughs> mystiquement gars yi laajee ko non si woon nga moom ndax la souffrance moom moom moom moom fii rafaat na fi 200 xaw ma 300 yoo xam ne ni macha allah foofu ñu seexi seexi waaw mais dama ne la aada. aada yéen da ngeen a bëgg siiw. non bul ñi man bëgguma fi mooy li ma la rek su ma su may siiw yàlla ma waxee yéen sax damay tooy dama naan la Adama Diarra a siiw ma ne ñeen sax damay tooy a siiw. man man kaay ma wax la benn mbir gis nga production yi fii ñi fiy def production mi jàll ci ay télé ay téléfilm. billaay wallaay watalaay majeure partie bi ñu porte projet xam naa leen muy moo xam réalisateur nga wala producteur nga wala comédien su ma neexoon woo dugg ci seen produit bëgguma siiw man damaa bëgg ci lu may dugg ñu sentir ma wool ma seen bopp ma négocier ak ñoom ñu fay ma liggéey dina ma neex daaro kenn du kenn du wax sama digganteeg moom ñaata la ñaata dina ma neex ñaata saison lay def mosu ma cee gis sentir ruñ ma su ma neexoon ne daaro dugal ma ci mosul dégg loolu ci man du ma ko def. man siw bu ànd ak xaalis yàlla na ma ci yàlla musal su may dem bay génn ci télé di siw yal na ànd ak xaalis parce que siw bu ànd ak xaalis dafa métti doo dugg kalandoo doo dugg super dootoo demee say xew famille foo dem war a sol yërëb bett amoo dërëm nit ñi ni yaa ngi ci bett yoroo dërëm ñi fiy ut tur yi yëpp di siw ñoo ngi siwee ci loo xam te ne xamuñu ko billaay wallaay watalaay bu ñu xamul li ci siw génn ci écran bi te yoroo dërëm wax ma sax am dërëm bi mais génn ci écran rek ni mu méttee risque yooyu man de yàlla na ma ci yàlla musal ñu bare ngi song production yi ñoo fay dugal seen bopp te cër biñ leen war a jox duñ leen ko jox nañu toog garder seen dignité digne liggéey lu tax nag ñu leen di woo boo ko defee nag ñu xam ni ñoom ñoo leen woo donc da ngay am valeur ci kanamu kala woo mais ñàkk fayda dem dugg ci production boo xam te ni yaa woote yow liggéey bi ngay liggéey sax kala koy sant wala ku la koy liggéeyloo di fier ci yow parce que dafa xam ni waaye man nii nii am naa lu ma mett daal suñu métier mi trop barki Rasuul laay nañu nañu diñ suñu bopp man man de bëgguma si wax fa dëgg neex yàlla bu ma demee bay fiw bëgg naa fiw nag mais na ànd ak xaalis na ànd ak alal ju bari joo xam te ne su ma amee sama soxla rek làmb sam poos daj ko defal sam bopp dimbali ñu bari waaw loolu daal laay ñaan moom waaw. seen émission nay riir la ñu ànd ceeg Adama Diarra bu troupe sargal aar bi nekk fii ci diwaanu fi mu bëgg ñëw si mooy mooy mooy mooy série yi nga xam si ko gisee. waaw baax na man baax na laa gisee baax na na yi def parce que xam nga nit ñi dafa am loo xam te ne dañ koy jaawale gis nga gis nga production yi di am ci ci télé yi loolu téléfilm la ça n'a rien à voir ak suñu théâtre bi du benn parce que les téléfilm la ku ne mën na ko def moo tax ma ni baax na mais def bi na tegu ci yoon na tegu fu mu war a tegu njëkke ko ci man ci sama bopp njëkke ko ci ñi may liggéeyal njëkke ko ci ñi may liggéeyal parce que production yëpp baax na man de wallaahi azim am naa lu may rëcc sama àdduna trop rawatina ci sama carrière bon dama yàlla baal pas ci sama àdduna lu may rëccu ci sama carrière tuuti. comme parce que dama teg woon ci benn lancé boo xam ni baaxut. parce que boobu dama doon dem ak sama xelu bopp rek di di ay spectacle di dagg di teg di wax di jouer ci ay ci yenn ay ay ay spectacle Sénégal yi moom ñi si ëpp ñi si ëpp ci saaga lañ siiwee mais du talent affaire yooyu diw dégg moom diw dafa mën a saaga rek lañ siiwee mais mais amuñu talent amuñu talent joué parce que comédie bi ñuy def sax naturel defu ko. Ah, man xam naa xam naa comprendre naa parce que man au début bi may njëkk di def loolu avant pan bon na ma yàlla baal parce que li may wax nii du question ñoom laay waxal ay partenaires ak waaju baax de man bi may def spectacle di joué loolu di def yooyu wallaay ñoom na ñenn ñu ma doon encouragé ci côté boobu parce que buntu rek lañ ko doon bëgg rek. mais bi ma demee ba xam te te dëgg laa xam ni fii ma teg sama tànk baaxul lépp nag Lady Fall moo tax ma génn ci non yàlla dëgg rek la bëgg man du wax nit ki yàlla nga lay nuyu te gisuma yàlla suñu borom parce que li may parce que suñu suñu ñun suñu suñu suñu population wala suñu public bi ñu am wala ñun suñu culture yaree wuñu noonu yaree wuñu noonu bi ma demee nag ba conscient ci loolu. laa toogaat nag xam sama bopp ñaanatuma yàlla des ci sama àdduna may jouer di wax naka su du wala may def naka su parce que même bu du dara suba say doom màgg Hmm? suba da ngay nekk benn kilifa boo xam te ni te image du ma sa nëbbu donc bëgg naa lu may def ci mu nekk lu leer grace à Leyti nag parce que sensibiliser na ma ci côté boobu xam nga man li tax ma gën ko fonk mooy bu lay wax day ñëw ci yow directement wax la ne la gis naa nga def nangam. lii nga def baaxul nangam ak sangam moo ma gënal fukki junni yoon yi nga xam te da ngay def ñu xam ne li nga def baaxul ñu ñëw ci yow naan booy baax na de fi ko teg baax na de te woo boo leen wanee ginnaaw ñu waxal la loo xam te ne mooy lool dafa am ci suñu métier mi looloo fi ne moo tax li may wax sama booy chaque jour bis bu ma ànd ak yéen génn dem jouer ji spectacle wala ñu def benn téléfilm nit na leen baax na ba ngeen ñëw di manifester wu ci lool rek man ak yéen la man li may gën a sawar mooy def pro def def spectacle wala ma def dara nga tax ak man jaxaran ni na ma li nga def baaxul ma sañoon nga yokk ci lii nga wàññi ci lii ñun nag ñun ñun comédien ñun noonu la ñuy defal suñu biir noonu la ñuy gorantee techniquement noonu la ñuy gorantee da ngay dem jouer benn spectacle ba wàcc def fa lu bon booy fii baax na de barki Rasulullah baax na toj nga fi. nga yëg sa bopp yow boo gàttee xel génn foog ne yaa ci nekk fekk ñu ngi lay lool mais liy defal directement lay jàkkaar yow ah ma keneen mais man def na ma ko. Adama jara saaga yi ngay def wala ni ngay joué wala ni ngay def bàyyi ko parce que lii suñu culture nangu ko nangam ak nangam maa ngi ko ciy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax barki alxuraanu karim yàlla na ko yàlla fay léegi dama koy déglu du question dañoo bokk aar ko wala dara de man du ma jeté nit de fleur wallahi azim sama bàmmeel laa taxaw man moo ma gënal fukki junni yoon ñi nga xam dañ naan la baax la te baaxul bëgguma maa ngi koy de passage muy muy Leyti Fall di président ARCO bu bu Pikine macha allah di sama xarit di sama mag di nit ku baax mais comme ni nga ko waxee ba tey seen émission nay riir ak Adama Diarra ma leen wax ne continuer ngeen abonné seen YouTube SBT ngeen bës seen tous ko la notification defee ngeen mën ànd ñun si vidéo yi mais mu ne que ngeen fee kaas novelage novelage ba novelage dem yaa ngi dégg ngeen indi fi ay série mais yéen seen seen ñàkk xam-xam maanaam ñàkk xam-xam nga xam ñàkk ngeen xam-xam moo tax léegi novelage yi ñoon joué thème yooyu ngeen jël di ko ñëwaat maanaam traduire ko wolof ñan ñooy ñàkk xam tàmbalee ko ci yow émission bi mais fi ma bëgg ñu ñëw fi rek mooy dama ne la série yi fi am nii actuellement nii nii nii nii nii seen série yi parce que li nga doon bañ ci novelas yi yaa ngi dégg yéen ci novelas yi ngeen di copier man de copier wu ma ci man novela man da nga gisagum sama benn production daawte la ñu ne Adama Diarra moo def scénario xam nga gisagoo man li ma bind li ma bindal sama bopp filmer ko ut ñu ma ko réaliser ay ponkal nekk ci même bu dul sax ay ponkal production bi ma mujjee def briser le silence ñun ay booyu ndaw ñoo ko def nekk ci troupe bi dëgg li ma lax wax la du théâtre yii nii wala ay ay ay ay téléfilm beneen niveau la dëgg la wax ay théâtre kat ñoo ko seetaan signé parce que man damaa def production boobu ma ne balaa production bi dam fenn nañu invité ñenn kàngam yi wala dem seeti yenn kàngam yi gàdd suñu machine wan leen dëgg li ma la wax Leyti Fall bi mu ko seetaanee dafa signé Soleil Levant Cheikh dem naa ba këram. billaahi wallaahi wa tallaahi bi mu gisee production bi fekk bi ma leen di sargal ñoom waa Soleil Levant dama ci teg benn extrait bu ndaw bi ma ñëwee di ko wax production bi mu ne mooy bi ngeen tegoon seen fee apprécié indi ma yóbbu ko nangam bërëb sàngam te bis boo gisee sama production daaw télé di xam beneen affaire. mais aar d'accord ak man que ni yaa ngi dégg série yi fi am ni jàngalu fi dara actuellement ni série daw amul lenn fi jàngal population bi yëpp wax nañ ko. waaw série fi daw majeure partie bi nekkul ay comédiens ñoo ko bind ah. du comédien yi de ñu fiy def ay série production muy jàll ci yu bari Pod et Marichou ñan ñoo ko def ñoom Pod ñoo ko def ñoom ay la lañ ay acteur lañ duñu ay comédien. mais kenn mu leen génne ci comédien ndax Sénégal fii non bi ñoom xamuñu bu ñu bojog bu ñu baxal nañ ma baal du question dama leen di xas ñoom bi ak comédien bi. mais ñun comédien xam nañ ñoom acteurs yi xam nañ ku ci acteur ak ku ci comédien. Pod ak Marichou ñi si ëpp léegi ay comédien ñoo fa nekk. waa man de ñi ma gis gis naa ci ay comédien Ndeye Fall comédien la. bëri na ay comi comédien kay boo leen fi génne mu jeex. a ah, bili daal xam naa ne comédien la moom Xaadim Seen Paate Seen. dama ne la boo fa génnee comédien yi day jeex. su ko demee du si la sax la bokk Paate Seen daf mel la bokk ci. bon man daal li ma ciy wax daal mooy ñu xamul dara ñooñu wala ñu bind lu baax wala ñu copier novelas yi Adama Diarra bokk ci comédiens yi nga xamante ni ñenn ñi gis naa leen bokk bokkaguñ ci parce que gisaguma seen production daw ci télé bi donc ñi nga xamante ni ñoo ciy def ñuy daw ci copier ay novelas ak yooyu ñoom la concerné wiiri wiiri ñu ko liggéey lan ay comédien lañ gis nga wiiri wiiri fa mu toll ci période boobu bi mu génnee gis nga fi mu toll. seen rek non non wuy ma aara aara aara aara yow moom eh, nu mu tuddati waa Soleil Levant nga bokk rek moo tax nga nekk défendre ay wiiri wiiri mais wiiri wiiri dem na ba benn instant Sénégal yëpp xam na ne wiiri wiiri moom jeex na. benn mbir ah. man du question Soleil Levant laa bokk man bokkuma Soleil Levant wax naa la ko sànq. aw ah, soriwoo Soleil Levant de soriwoo Soleil Levant de. kaa mi wax la soliwuma Soleil Levant Soleil Levant sama biir xol la nekk. teg du question damaa toog fii di leen défendre parce que dañoo def ci théâtre Sénégal. te sax Soleil dafa ñett nit. ñett nit dafa ñett nit ñaan waa loolu après yow nga dem waxtaan ci ak ñoom parce que man xaw ko ku fa des ak ku fa desut. yàlla mi xam na ko parce que du ma leen fréquenté man xaw ma seen lieu de tournage xaw ma fu ñuy répété xaw ma fu ñuy daje barki alxuraanu karim du caaxaan. bàyyil soleil levant nga bokk soleil levant ba ñu ma faa bokk su ma fa mënoon bokk tay tay tay dama fay bokk. may sargalaar bi. non sargalaar bi dara mënul tax ma ba sargalaar bi barki alxuraanu karim kenn mënul tax ci këru àdduna ma ba ko du troupe gis nga gis nga public bi ñuy seetaan non bu ñu la fi bëggee jële par force dañ la fi jëlee par la force bu ñu bëggee jëlee wiir wiir dañ ko fiy jëlee bu ñu si bëggee jëlee pot et marichou wala keneen ak keneen dañ la fiy jëlee par force amul nii amul naa di question di question ay ay dafa wàcc ak dafa yëg de bu ñu la fi bëggee jëlee da nga fiy jógee par la force parce que ah kaay nag ma wax la de ñun gars yi forcé wuñ pour ñu seetaan kenn de forcé wuñ pour nga seetaan kenn yaay am sa commande toog di seetaan yaay zappé boo xoolee boo gisee la neex nga seetaan boo gisul la neex nga bàyyi loolu amul leneen mais bu ñu la fa dañ la fiy jëlee question ay dafa wàcceeg yooyu de. du question koor gi noo ko ne maanaam koor gi ñëpp presque ñëpp même style de jeu ba pare ba pare léegi amatuñ amatuñ ay tem ay kër nangam ay kër nangam kër nangam rek ngay dégg kër nangam kër nangam kër nangam amul benn benn wa ilaa turu comédien bi lay porté. waaw mais loolu man ba tey dama naan c'est bien rek man li ma amal importance mooy nañu def gis nga ñun lu ñu war a def bu ñu ko deful ñeneen ñëw def ko mais def bi nañ ko teg ci yoon nañ na tegu fu mu war a tegu man li may réccu ci sama àdduna barke Rasuul laay maa yàlla rek ñoo ko xam. ah yéen nga produire d'accord produire baax na mais c'est-à-dire ngeen ngeen ngeen parce que bëri te baaxut mu maanaam mu néew te baax moo gën. waaw mais mu néew léegi yow ñan ñoo fi deful lu baax fi non xam nga ko yow kay yaa nga ne yow gis nga gis yi série yi daw nii. koor gi sûrement koor gii nii koor gii. koor gi série yi fi daw yëpp a niroo même style waaw mais loolu peut-être boog ci ñi nga xam te ñoo koy xalaat di bind la gis nga xel day daje man mën naa xalaat benn mbir nii léegi balaa moo koy génnee léegi léegi léegi keneen def ko. Ah, da ngeen improviser rek bindu ngeen dara. improviser man du ma improviser man Adama Diarra man. moo tax man série yi ma gis nii mooy daaw ci koor gi moom ñoom ñu koy def ñoom ñoo xam li tax ñuy def ñu tax ñu peut-être ne improvisé moo leen saf ñu improvisé ñi ciy bind non gis nga bu ñu bindee ba génnee da ngay xam ni ñii dañoo bind man Adama Diarra gisagoo sam benn produit bu daal télé te xaw ma a dugg ma fenn kenn mais wallaahi azim fii laa la wax te te la laay waxee. bis bu sama produit yu dawee télé xaw ma kañ la ko yàlla dogal di nga xam ne lii dañ ko bind lii da nga dañ ko liggéey te am na qualité bu baax man mbëggeelu ma mbëggeelantu dañ ñuy nax. bu ñu bëggee ñu déglu leen dañuy waay ñun bi ñu juddoo ba ñu ñu wayal mbëggeel novelas yi mbëggeel suñu théâtre yoo xam te ne war nañ ko fi mën a waxtaane waaye yow man gis nga ñiy bind ñu ngi bind de ñii bind ñu ngi bind de ñi fiy bindantu nii wala di improviser rek peut-être bëgg def la rek pour def loolu rek moo fi nekk waaw mais ñi ngi bind moom ñu ngi bind. boo ñu doon defal sondage ci ci koor gi maam série yi nga xam ne moo fi daw boo doon def sondage nii actuellement nii nii nii jàpp ne fi noonu moo tegu ci kaw. seetaanu gu ma benn <laughs> seetaanu gu ma benn. <laughs> parce que parce que production yi moment yi muy daw instant boobu mi ma fekk maa ngi liggéey weer koor ko ku xam Biros Doore bokk ak fi réew mi tombeel nii 13h laay gont balaa may wàcc ay 21h nangam damay fekk production yi jeex te aw temps bu may duggee ci internet bi naan dama koy seetaan aw ma jot bi bay reer da tëdd donc par occasion xanaa nii ma amee congé nii dinaa nag ma xool lépp ci diggante bi lu ma xool ci diggante bi moom dinaa dinaa ñu defaat ci beneen émission man dama fi ñëw toog pour wax dénoncé yi am ci métier bi de ñoo ma pour daw lu leer laa la wax. loo jot ak jàmm ak salaam man numbe lu ñu jote man numbe dem ci guddi lañ déggante <laughs> aar yaa ma ne ma ne mi ngi noonu seen émission nay rëñ dal aar ba aar noo jara non defal naa man for naa ci wu kani yow ak man am ngeen problème man numbe la ilaha kooku fii laa ko teg déggoo ma xanaa barki alxuraanu karim mbindeef mënoo tax ba ma joteeg moom ci kër na wax naa la li tax ma jàpp ko. aara da ngaa sikk de non defal naa aara man for naa ci yóbbay na kii sikk nga def aara da ngay xuloo aara da ngay xeex aara da ngaa naq dara aara nekk Pikine bañ ko ko ba yow artiste nekk Pikine sax doo ci fréquenté kenn. non même bul bul ne artiste nekk Pikine de man laa wax duma ma benn artiste man man laa wax aara ma jara aw ma xarit bu may fréquenté ci métier mi amaguma ci xarit ñaari xarit yi laa ci am déglu lu baax li ma lay wax maar Ndiaye doomu meer Caba Thiès maa ngi sama yaay jooju keneen ki muy Faa Bintu Njaay ñooñu laay demalante di dikkalante di dégganteek ñoom ñu bari su ma nee aw ci xarit na xarit mooy ngay fréquenté tout le temps ngeen di déggante ci yu bari lu ngeen di def ngeen waxante ko ñoo ñaar ñooñu la fii di Samb ma numbee jotawuñu dara barki alxuraanu karim gis nga nit ñi dañuy wax rek barki démb laa ko ci benn affaire boo xam te maa soxla ci beneen affaire bu dul sax sama yëfu bopp démb ci guddi ñun bu ñu topp public bi parce que bu ñu toppee public bi ñoo ñuy féewale ñun suñu biir wala bokk yenn comédiens yi nga xam te ne dañoo nekk ñun ci suñu biir ñooy féewale yenn ci suñu biir man de am na inspiré boo xamante ni wala bokk inspiré dépassement boo xamante ni ku ñëw di man xanaa léegi loolu laa ko bàyyi li nga naan damaa bari histoire wala damaa sikk wala loolu la sama sikk ak sama histoire xam te léegi laa ko bàyyi sax man dañ daa toog nii man ak yow ñuy wax ci nit barki Rasulaay wala keneen ñëw wala yow nga toog ak keneen di jëw nit ma déglu leen damay bàyyi bu kooku ñëw mën leen yow ak ak diw diw ak démb fii lañ nekkoon di la jëw wax li mu wax lépp sama troupe noon laa doon doxalee ak ñoom moo tax ñëpp dëggu ñi fi njëkkoon a nekk laaj leen nit danaa def benn affaire wala ñaar nit toog jëw nit ma bàyyi ba troupe bi ñëpp toog man leen kaa leen ñëpp toog man leen diw ak diw ñoo fi nekkoon démb de yow ak yow lañ doon jëw wax nañ ci yow lii ak lii ak lii wallahi azim barke alxuraanu karim mujj gi dara dem ba benn instant ñun ñëpp dañoo jub kenn dootul jëw kenn dootul waxul sa yoon lu sa nekkul kenn du dugg fenn yow mii xam nga li ma lay wax. gaa yi naan da seytaane man aar man xaw ma si dara de xaw ma si dara de yow kay lii rek gaa yi naan da ngaa seytaane. wala bu dee sama seytaane ci loolu laa ko wékk ma xam ne ci laay dee léegi la rek nit ñi naan nit da am sutura affaire yooyu te pourtant bi ma leen di teg boobu après bi ñu bokk aar ko gis léegi doxalee noonu xam nga booy lu ñu doon wax lëy ndekete aadama jaral foo dem fekk fa mooy li ma la wax métier mi boo ci nekkee nekk nit ku dëggu dañ lay jàppee fumiste teg classé la comme benn vaurien wala benn dof boo xam te ni dañ lay utal fuñ la classé mooy lu ñuy def duñ la ci boole lu ñuy xewle duñ la ko wax dañ lay jël classé la nële parce que dañu xam ne yow nitu dëggu nga man nag bu dee ci loolaay dee billaay wallaay watalaay dinaa ci de du ma wéeru ci mbindeef bu yàlla sàq pour nga jàllale ma du ma la maral pour nga génnee ma ci métier mi ñu nekk parce que gannaaw yàlla ak yonent bi samay waajur def nañ ci man loo xamante ni barke Rasulullah nit du ma ci àdduna pour ay maral lii pour génne te la wala ma nga may bokkal ci yenn affaire wala di la nettal nga may bool ci ko yaakaar ci man ma xam ni bokk sa dara man li ma la rek. xaw ma kenn xamuma siiw ma aw ma xam-xamu parce que su ma amoon xam-xamu théâtre sama troupe ñu may defal yenn affaire yi wala ma koy jàngi mais fulla ak fayda ne ci man loolu tax ñu naan damaa naqari deret barki Rasuulaay ci laay dee mooy dëgg fu ma fekk ak ku ma ko war a wax ñu séq ko dama la koy wax te nu ma ko sentir laa koy wax soo may jàpp nga jàpp ma sooy xuloog man nga xuloog man loolu tax Faa Bintu Njaay taalibe Cheikh ban ñi la dëkk loolu tax suñu ànd neex ak Maar Njaay parce que barki alxuraan dañuy xuloo ba sip ba ni fëng di dóorante ay kurpañ bu ñu paree dañuy gën nekk ca lañ nekkoon. Njaay sama doom la nit ku baax la sama doom la maay baayam maay baayam. mi ngi wax gis nga métier mi moo demee noonu man du ma wéeru ci nit wala ma lay nettali pour nga génne ma ci télé wala ma lay nettali nga may dugal ci sa ay projet wala ma lay nettali nga may dugal ci ay ay spectacle dem invité ku ko yaakaar dee moo tax instant dox boobu lañ ma jàppee ma sant ci yàlla. sant ci yàlla baax te xam ni dëgg yàlla moo ko moom gis nga li may wax nii wax naa ko sànq am na ñoo xam te ni bu dee ay nitu dëgg lañu ñu nekk ci métier mi gis li may wax nii dañ xam ne boo bi kat dëgg la wax. mais ñi ñi ci laa commentaire kay seen affaire la. seen affaire la parce que li may wax ci dëgg laa ko teg yàqu-yàqu yu nekk ci métier bi li ci war a wax foo ma ko waxoon tey dëkk bi toj mais l' essentiel wax seen émission bi nga mooy seen série bii daw seen tii réewa mooy lan lan mooy réewa leen ak lan moo tax réewaleen lan moo ko tax a jóg. bon réewaleen loolu loolu loolu tur bi sax bugaan moom moom moo ko tuddee réewaleen bugaan gay dani moom moo ko tuddee réewaleen mais li ñu taxoon jóg rek mooy sensibiliser population bi wala. non dafa naan kon bugaan moo bind scénario bi. bugaan bindul scénario bi scénario bi Daaro Caam bu dina ma neex moom moo ko bind moo réaliser film bi moo am idée moo am concept am bind le média moo produire production bi comprendre nga donc film bi. reewoo leen bi man bi ma koy am après information yi ma ci am moom moo ne Bougane Gueye moom moo tuddee film bi reewoo leen comprendre nga mais titre film bi nekkul woon loolu comprendre la woon. titre film bi est que fàttewu ma ko sax ñu ngi doon xaw ma sax yàlla xam ne fàtte naa ko barke alxuraan <laughs> damaa woor nag billaay wallaay wa laay fàtte naa ko. comprendre nga donc information boobu lañ ci am ni que Bougane Gueye moo ko tuddee donc reewoo leen nag léegi ñun dañ doon dañ doon sensibiliser ñenn ñi nga xam te ñoo koy def parce que Sénégal lu fi nit joué rek am na. lu fi nit joué am na donc sensibilisation. lii lii ngeen lii ngeen joué moom moom Sénégal yëpp d'accord ne amut ci ci lañ a gisee. fa laa jëm fa laa jëm. non damaa bëgg mu la parce que na may leen moom Sénégal yëpp d'accord ne moom ci lañ ko mës a gisee ci lañ ko déggee mi sama lañ ci dama ni. Sénégal fii lu fi nit joué am na mais ci façon biñ koy defee lañu ñu war a xoolaat wax naa la sànq ci biir wax ni la man Leyti Fall daf maa dimbali ci yu bari ci domaine ba ma nekkoon film bi li ci am ni góor jigéen yi na ma yàlla baal ak ñi may déglu nañ ma baal ci kàddu gi may génnee astafurla donc loolu dafa am Sénégal donc ñooñ dañ leen di sensibiliser pour ñu génn ci domaine boobu ñi nga xam te ne dañuy toroxal seen yaay di leen yónni am na ci Sénégal dafa fësut dañ leen bëgg génnee ci domaine boobu mais ñun façon bi ñu ko defee la ak public bi nga xam te ne dañ koy seetaan niñ ko recevoir solo ñoom li ñu gis loolu rek la ñu commentaire moo tax damay ànd ak ñoom ci loolu dama lay wax benn mbir sànq li ma la wax laa wax ñun suñu biir comédiens yi dañuy bëgg di maral nit ak di wéeru ci nit pour ñu koy génne parce que écran bi rek moo leen ñor man écran bi ñoruma damay wax dëgg te tax parce fii ma toog looloo ma fi teg. premier épisode bi ma dawee man commentaire laa doon xool bi ma gisee commentaire yi gars yi dañoo dugg ci biir groupe bi di wax di wax di wax di wax di wax am ci ay nit yoo xamante ne nii wallaahi azim jël ma ci suuf ah jara yow de war ngaa wax. ñun de suñu film bii moom ndàngam sàngam lii de moom yéeme na yow dañ a dégg parce que même bu benn fan sax yaa ngi ci jiitoo te avant ñu may jël suuf dugg nañ ci biir kër gi ba apprécier film bi parce que bi affaire bi amee Daara moo dugg ci kër gi di encourager gars yi naan leen baax na garaawul amul problème góorgóorlu leen parce que ñun ñoo engagé wu métier bi man ma dugg encourager gars yi selon ci tuuti rek li leen jiitoo ci métier bi nañu assumer suñu ay responsabilité la ma wax ci audio laa wax nañu assumer suñu responsabilité parce que ñun ñoo génn pour def mais nañu assumer am ñu doon dugg ci biir kër gi naan baax na nangam jërëjëf Daara yi ngi lay sant ñu ngi lay gërëm que après ñu jël ma ci suuf di koy comédien rek fumiste yi ñenn ñi yow de Adama Diarra war ngaa wax film bi de moom xam naa ni moom hmm, di commentaire yi war nga wallahi azim damaa woor barke alxuraan karim ma déglu leen xool ñaari différence yi ñu wax parce que bëgg nañ maa dugal te sama diggante ak Daaro daar du ko yàq man leen baax na. ñu ne ma waxal waaye bul kii man leen baax na du yéen a wax baax na kay baax na la ma ci waxaat leneen lool laa ci wax mais man sama jëmmi bopp damaa waxaat ci beneen audio ne leen man su ma sañoon comme public baa ngi wax nañu woote réunion d'urgence ñu xool naka la ñuy régler situation bi yu bari bari na ay comédiens fii yoo xam te ni d'accord ñu film bi barki Seydina Mohamed déglu naa benn comédien bu apprécié wax ko daaru ci suuf tëmbal audio man mii dugal naa ay audio yoo xam te ne ay quelques sénégalais yoo xam te ne duñu ay comédien ma tëmbal ci suuf d'après ci encouragement yi ñu doon encouragé ñenn ñi. mais man sama jëb boobu bari na ay comédiens yoo xam te ne taxaw nañ ne lii baaxul sénégalais yi wax na lii baaxul. comprendre nga te ñun li ma la rek li ñuy liggéey dafa am rapport ak public bi donc public bi lu ñu xool ba ni lii la donc ñun bu boobaa dañoo a taxaw xool suñu taxawaay xool lu ñu war a defaat ak nangam ak bari na ay faay yu ci nekk yàlla dëgg rek la bëgg man ci production bi la bokk xam naa ne am na ay faay te dañ koy nangoo te xam ni ñun ñoo ko def am na benn boobu ma jot waxtaanal parce que ci biir film bi dégg naa raja di way ba euh, réew xaw ma euh, ñun de réewuñu sax yéen ñu bàyyi ci lu ñu neex ñun de réewuñu yéen a topp ci lu ñu neex nangam ak sangam di wax wax bu mel noonu man bi ma déggee loolu son boobu son boobu damaa am surprise ci film bi parce que son bi damaa xëy comme un bon jour de mi daw ci film bi mais man personnellement damaa toog étudier wallahi azim barke alxuraanu karim sama bàmmeel ne lii man su ma fekkoon non lii du ko wax. waaye ci biir film bi ne ñu reewuñu yéen ñu topp ci lu ñu neex nangam ak sangam loolu la am na yoo xamante ni bu dee am dañ ko war a xool. donc fi ñu waroon jaar donc jaaruñu fa moo tax yenn erreur yi am dañ koy nangu nag dañ koy nangu parce que ñun ñoo ko def damay assumer samay responsabilité ngeen waroon jaar jaaroo ngeen fi ñu waroon jaar mooy dañoo waroon am benn benn benn benn benn maanaam benn équipe boo xamante ni tey donc man sax mën naa jël sama bopp exemple man sama bopp foot bi ma njëkk def parce que daaraw bi muy def production bi woo na ma bi ñu waree démarrer fekk ñu ñëwoon réunion këram mu a ma xaar ma ma xaar ko mu toog ci biir ñu saalam toog ñu waxtaan mu ne production bi lii laa bëgg a def donc idée générale bi lii la mais waxuma scénario bi idée générale production bi la ma jox ma apprécier nag d' après li ma gis li ma d' après li ma li ma li ma expliqué na na ma yàlla baal ci li ma ne li ma gis li ma expliqué ma dégg parce que du këyit la ma wan ma apprécier production bi mais bi ma gisee production bi daw dawaat dawaat dawaat dawaat dawaat dawaat non ma xam ne ñun def nañ ay ay ay ay ay yoo xam ne wala ay failles yoo xam te ni peut-être bu ñu toogoon ñu organiser wu ñu am scénario boo xam te ni bien écrit la ñu bind ko normal ñu toog ñu def suñu ay découpage préparé ne lii la donc bu ñu amee tournage gannaaw suba ñu toog deux jours avant ñu étudier suñu scénario defar xool ma nangam donc yenn faay du am. du ma ne nag baaxul baax na parce que jigéen ju jàmbaare la parce que li mu def jafe na nga gis nit du ko def dajal ay nit def sa production sonn ci rey sa bopp yëkk sa dërëm di ci def baax na ñu ne la waa xasuma ko critiqué wu critiqué wu ma ko mais dam erreur dama ko jël teg ko ñun ci suñu bopp njëkkee ko ci man ne faay yooyu lañu def am na fu ñu doon jaar noo demee nii. donc public bi nag ah li ñu wax noonu dañuy assumer suñu responsabilité rek li ma waxoon gars yi. aada aada aada boo xam ne mi ngi daaw te jeexagut. pour man critique critique teel na public bi nag moom kenn muy leen tee critiqué mais artistes yi nga xam si ne ay artistes la nekk ci miller bi. Ah, xam ni aada doxe parce que la ñuy wax dëgg euh, donc suspense maanaam euh, scénario bu fekkee ne amul suspense bu fekkee ne premier épisode bi dafa daw deuxième épisode bi nga xam fin bi amul sens pour man pour man euh, critique teel daal foofu laa a waxee. léegi parce que man non dafa naag aar ñun ñëpp kenn ku nekk am nga sa xel donc Daaru Thiam ñu ngi lay encouragé di la visité incha dem jëli ko waxtaan ak moom ci seen bi nga xam moom moo dina riir ñu leeral seen séeréer boobu mu def muy réewaleen mais dama aada pour man critique teel na. muy muy comédiens yi muy yóbbu public bi nag ñoom bu leen neexee ñu ñu réagir donc nag selon man euh, ni mbir mi bu réagir war naa tax ngeen bu fekkee jékkoo ngeen jékku ngeen woon ngeen xool nu ngeen jekkes ni ko ah gérer fin bi. waa xam nga production bi man su doon su doon sénégalais yi ñoo ci wax ne baaxul duma leen tontu te duma tontu sénégalais yi parce que ñoom li ñu gis la ñu wax. mais ay kàngamu théâtre kat ay comédien laa la wax ay professionnel parce que dañu am benn groupe boo xam te ni dafa tudd euh, groupe la boo xam te ni mu tuddati aar euh, euh, soldat moo tax mënumaa wax tudd parce que aar soldat beneen groupe whatsapp la boo xam te ni discipline ñun benn groupe la whatsapp boo xam ay comédien ñoo tekk dañ ko tuddee discipline ci groupe la laa bokk. mais aar nan ngay ñan ngay tuddee ñan ngay tuddee ay kàngam théâtre Sénégal ñan ngay tuddee ay ñan du ma fi nekk di lim parce que su boobaa da nga may bëgg dugal te su boobaa tamit ñooñu tamit mën nañu mën nañu mën nga leen a mën mën donc mën naa wax seen tur donc d' après li ñuy apprécier wax ma seen i erreur donc est ce que wax nañ ko daaro comprendre nga fi may waxee man mën nañ ma mën nañ ma critiquer ne seen production bi baaxul dem ci daaroo ne ko baax na. loolu moo tax a da ngeen a a pare a raay ci a pare di di kii ci suuf moo tax. moom laa la ñi ñëw ci man ne ma seen production bi baaxul parce que benn aadama jaral peut-être amul benn junni bu ma la bokkal wala ñaari junni nga ne ma baaxul ma accepté nga dem ci daaro na ko yii seen film bi baax na wallaay seen film bi moom barki Rasulaay nangam ak nangam daaro dafay gis ne baax na donc man sama taxee wax ñooñu seen tur comprendre nga mun na mun na mun na mun na mun na am mun naa leen a feeñal te wallaay damay bëgg di feeñal ñooñu barki Seydina Muhammad dafa am ci métier mooy li ma la wax sànq. génn télé la ñuy bëgg ba leen di jaral jaay seen ngor man loolu moom ko jaral mooy li ma la wax ci groupe bi. te wallahi azim àpp naa ko fii bis bi réunion amee parce que war nañu réunion koor gee tax dinaa wax ñu ko def. barki alxuraanu karim. ñooñu ci lañ bokk. ñooñu ci biir film bi lañu bokk déggoo ma xanaa ci biir film bi aw ma lu ma ciy nëbb ci biir film bi lañu bokk ñoo xam te ni ay rôle yu baax lañ ci am ñoo koy ŋàññi ci suuf dem ci kaw naan ko baax na man fonctionnaire yoo ma noonu daaro sama diggante moom xam na. am na ñenn ñoo xam te ay Faa Bintu ay ñeneen ak ñeneen xam nañ sama diggante man ak ñoom parce que dañoo bokkoon benn groupe laa boo xam te ni laaj leen man dëgg rek laa fay wax dëgg rek amul nii amul naa moom soo may mere nga mere ma soo may bàyyi ma mais jaay pour dara ñoo ba gars yi wootee rek ñoo gars yi bay ñëw. <laughs> bu la neexee bu ñëw boobaa ma gën bu ñu ñëwee damay wax bu ñu ñëwul damay wax. barki Seydina Mohamed ñooñu bu ñu ñëwee réunion damay wax bu ñëw réunion parce que ñooñu ñoo ñuy rey li tax ñu ñuy rey nañu bàyyi bëggum génnum tele di jaay nit ñi di wax loo xam te amul ñun ñuy jëmee ñuy jëm feneen foo xam te boo bokkut ak fi ñu waroon dem comprendre nga man ñooñu ñëpp dinaa gis nga bu réunion amee moo tax yaa ngi naan film bi dina continuer wala nangam ñu ngi xaar suite bi man gëwma suite bi nit ñi di ko xaar parce que tourné nañu lu bari ba pare te waroon na continuer mais fi réew mi euh, mu egg de que nag sëb la la ko bëccëg nga ca biir te du maay toog fii di ko wax parce que loolu dafa concerné groupe bi mais dama ciy cox pour sénégalais yi bu leen neexee ñu xaar ah yàlla mën na dogal lu lépp sotti ñu ñu mu génn yàlla mën na bañ a mu bañ a sotti tamit mooy lool parce que production bi sax gis naa ko gis mu daaw télé léegi ci chaîne bi lay daw xamul tax dawatut donc amatuma ci yenn information yi. bon ak ñi bëgg a bomb mais man moom man Adama Diarra personnellement ah déglu naa comédiens yi de te ay kàngam nag ñoo ñoo ma wax. kàngam kàngam mooy ñan. ñoo ma wax kàngam dinaa la dinaa la citeel benn tur. ba ci ñaari tur te ñooñ sax bëgguma citer seen tur parce que dañoo am dañoo am dañoo dañoo dañoo am nu ñu mel daaro te bëgguma bëgguma wax bëgguma wax daaro dégg loolu mere leen. amaana sax ñi ngay wax nii nga xam ne ñoom ñoo critiqué amaana ñoom dañ na daaro baax na. day am waxuma dañ kaa def de mais mën na am parce que déglu naa ci déglu naa ci benn comédien wallahi azim barke alxuraanu karim daaro moo dugal audio bi ci biir kër gi comédien boobu di apprécier te comédien mag la bu am tur bu ñu xam. te la yow baaxut. <laughs> damaa toog fi ma toog man duggatuma ci kër gi waxatuma ay ay ay waay yow man gëwuma loolu. gis nga nit booy taxaw naan lii baaxul ba mooy li ma la wax rek sànq wax naa la ko gars yi dañ lay apprécier boo defee lu bon naan la baax na yaa fi ne nangam boo wane ginnaaw ñu gor sa tànk. man gëw ma loolu gëw ma loolu man su ma demee ba mënu ma laa wax say faay ma toog noppi moom ko gënal wallahi azim barke alxuraan lii dafa li tax ma bëgg ko fonk ko loolu la. te pourtant ci film bii nii am na ñaari nit dama ñëw bureau aar ko un jour ma am moom rendez-vous ak Faa Bintu dajeeg moom ci buntu bi noonu rek mu ne ma Adama Diarra ñaar nit boole na ma ak de ñaar nit boole na ma ak yow nga def ci télé waaye ñëwal ñëwal mais bi demee di waxtaan waxtaanuñu sax ci film bi parce que dañoo demoon di waxtaan ci beneen affaire donc Leyti Fall li tax mu bëgg ko mooy wax naa la ko moom moom day jàkkaarloo yow wax li mu la bëgg a wax léegi imaginer ñaar ñooñu woo Leyti di ko kalaame kalaame wuñ ko nag pour de pour pour dañuy jéem a nettali wala nangam de dama gis ne rek peut nit ku nekk am nga yaakaar ci ka ngay dem wax mu fajal sa soxla man noonu laa ko gisee gisuma dem di kalaame ci beneen anam bu bon wala dara dañoo bëgg rek lu baax mais mënoon nañ ma woo directement mënoon nañ ma woo directement te xam nañ ma suñ ma ah su ma sañoon seen fil bi gisee naa nii gisee naa nii defeel nii defeel nii wala yow waroo woon a bokk ci li war war nga cee bokk dinaa xam comprendre ma xam ni ñii mais dañoo jaar indirectement mais indirect boobu noonu ñu jaar dafa ñu jaar sax ma gënal nag te kooku daf la koy wax directement du laam-laamal du sikk sikkal parce que mooy li ma wax dama koy sant di ko gërëm parce que dafa maa génnee ci lu bari foo xam te ni dama fa doon teg sama tànk foo xam te ni baaxul ci métier mi wallahi ay azim léegi defaat jox ma lekk jox ma ma naan jox ma dépense sama kër jox ma dara wallahi azim man it waxi nopp mais bu la nit jàppalee ci dara da nga koy dimbali léegi defaat dafay defar ay nit yoo xam te ni ci ay waxam mooy li may wax rek Faa Bintu di ko wax booy arko yi dañuy dem arko man répétition verbale laay gën a yàqamti léegi di wax mais teewul la muy wax li ma arrangé jël li ma wul du ko jël. du question damay pour bëgg relation bëgg mu taf ci ak moom nit ku baax la parce que daf ñoo yàgg mu taal essence am yëkkati saaku ceeb diwlin alalam jox ñu ne su manqué defaat leen clé defal lool jàppalewu la mi ngi noonu. mi ngi noonu seen émission nay riir la woon li mayoon ci waxtu xaabaabul nañ xaabaabul allah ñu lay sant di la sa disponibilité ndax booba léegi ñu lay woo aara émission émission nga naan xaaral xaaral tey moom damaa damaa rek tàggoo ma sax damaa ñëw rek fëgg buntu bi dajji buntu bi ñëw na ko sawaay génnal ñu def émission bi moo tax sax ñu parce dama ko yee gis ngeen suba teel gi la nekk dama ko yee aj ko sax ci kaw nii parce waaw première daa moo a xam mais aada kontaan nag moom lépp mi ngi ci loxoy Faa Bintu Njaay taalibe Cheikh actuellement moo géré sama carrière moo géré carrière u comédien moo géré carrière u troupe bi taalibe Cheikh Fabintu moom fi mu gën a méttee ci sama carrière la ñëw wallaay azim muy jigéen moom rek laa gis fi mu gën a méttee ci sama côté laa gisee. gis nga interview bii ñu def su ma ko teeloon wax su ma ko teeloon woo wax ko ko nii wallaay azim du ko nangu te mosuñu réeroo ci dara lu may dugg wax ko mais il faut ñu def ko yow sama nit nga moom sama nit nga parce que bëggul sax may génn ci ay wax naa ibbi naa samay képp ku ma soxla ñëwal. te man assumé samay responsabilité mais képp ku ma soxla aussi tamit pour ñu def interview ñu génne yenn fee yu yàqu ci métier mi teewul dinaa wax ak moom ba pare mu ma bàyyi ma def ko parce que nit tamit da ngay am kilifa donc projet yi mi ngi ci ay loxoom li ma wax mooy nañu liggéey donc yu bari moo koy def mais man sama jëm bopp personnellement Adama Diarra man li ma xalaatal sama bopp xalaatal ko sama troupe mooy tëju liggéey tëju liggéey defaraat sama bopp bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que fi ma jóge ak fi ma dal dafa metti woon ak fi ma bëgg a jóge waat ni demaat feneen day laaj liggéey bu bari day laaj concentration day laaj formation yu bari day laaj defal sa yaram day laaj am ci ñooy wéeru day laaj déglu ci kàngam yi pas ay wéeru génte la de am ci kilifa Sanekh li ma koy suivre li may jàng ci moom est-ce que mosuñu toog mosuñu toog mu ne ma doxaleel nii doxaleel nii parce que ay kàddoom laay di doxee noonu toog nañu biir këram mu ne ma benn baat la ma wax demal boobu maa ngi ànd ak Pablum ak Bintu Gueye ci biir néegam mu ne ma dem leen maa ngi toog di leen suivre kon mi ngi may bàyyi xel donc bëgg naa li may def mu leer Leyti Fall waxe nopp dama ko bëgg indil ay compte rendu yu leer Leyti Fall saa neexoo ba ci Daaro Faa Bintu bëgg naa lu may defat sama carrière li des ci sama kanam mu nekk lu leer loo xam même su ma leen ko waxul wala ñëw ma ci ñoom tàggu leen buñ ko gisee ñu fier ci donc ci loolu laa nekk tëju liggéey ak booy yi concentré wu defal lépp daal parce que dam ko daal sa patt daal bi yow ban part daal la du ma jaxasee public bi. aada sa part daal la Adama part daal sa part daal la bin saa coon sa part daal la Adama aada. xaw ma da laaj pour tàndu xaw ma da ngay laaj pour dara. wallaay xaajale sa part daal man man li ma lay wax dama ko xam li bi néew ma la néew naa dama ne la ana sa daal bi feeñ na feeñu. dama lay benn mbir lu gën a garaaw. barki Rasulaay du ay mbalak ci weeru koor laa nekk est xam nga damay jékki-jékki du ma gis sama benn pat daal sama kër jékki-jékki sama ay yére du ma ma gis ma gis ma gis tubéy bi du ma gis yére wallaay azim am na benn yére boo xam te ne grand boubou la trois pièces trois pièces bu bees tàq benn yoon laa ko mos sol dem tournage ñëw sama kër tubéy bi laa gis jiital baag yëpp gisuma ko laaj naa ko tailleur bi mu ne gisu ko laaj naa ko sama waa kër ñu ne gisuñu ko man nii la samay ay affaire di réer sa wallaay barke alxuraanu karim du ay caaxaan damay jég sama benn pat daal réer sama yére wala sama benn kawas wala sama dara te man du ma xam lu ko fay jëlee. waa ñu la <laughs> du ma ko jiiñ kenn nag peut mën na ne xale yay fo fowee ko wala yoo yooyu yëpp mën na nekk. xale yi grand boobu fo xale pat daal ah bàyyi ne xale yi dañuy mën a am na sécurité parce que buntu appartement bi dañ koy croisé sama néeg waxi nopp. sama néeg waxi nopp mooy li ma mën naa jàpp ne xale yi dugg sama néeg ñoo koy jël di fooyee wala genre yi demee mais daal ku ci nekk li ma lay mën a wax mooy defaral sa bopp defaral sa yaram na saf sap bu def kenn lu bon mais jógal ci sa bopp defar ko fi. Ama Baldé Modou Lô Balla Gaye yaa leen raw. non maa wax dëgg yàlla foo mën a dugg naa fa dugg ku ma ci mën a jàppale tamit moo xam fi kilifa nekk moo tax Abdallah Diouf maa ngi koy sant di ko gërëm Abdallah maa koy sant di ko gërëm kilifa gu ma mën a dimbali te yàlla rek tax woo ma defar man maa ngi nii pare naa ku ma mën a boole kilifa it pare naa xam nga man xaw ma kenn loolooy problème bi mais daal di la sant yow di la gërëm hmm, parce que entretien bi neex na émission bi neex na di di wax nag bu fekkente ne wax nañ fi leen loo xam te ne déranger na nit ñoo ngi tuub di jégalu di baalu àq parce que xam naa li may wax am naa ñu mu am na ñu mu arrangé wul ñi mu arrangé leen sant di di leen gërëm ñi mu arrangé wul leen sant di leen gërëm ñi mu dérangé nag te arrangé wu leen tam ñu xam ne dañoo nekk ci métier def nag su dul noonu tey tudduma seen tur tudduma seen tur de mais xaw ma kan moo may jëlaat interview tur laay tudd parce que ñooñu moom xam naa bu kilifa yi ñi nga xam ñu ngi def loolu buñ leen dénoncé wul man dinaa taxaw wax leen ko te dama ci am ay preuve te mun naa wax fu ñu sàkkoo kii fu ñu defee lii kii fu ñu yëpp xam naa ko parce que damay taxaw. maa maa maa lay maa lay gëstu waat dans 15 jours. 15 jours maa la ko permettre dinaa ñëwaat ñu defaat émission nay réer bu spécial boo xam se ni ñu il faut parce que loolu dafa war a leer parce que nag boo nekk ci mbir am ñoo xam ne dañ ca yàq war ngaa wax ne ñii ñoo yàq bu ko defee ñu xam ne ñii ñoo yàq ñu xàmmee leen ba bu ëllëgee bu ñu jógee ñu mën leen ñu mën leen fatal porte yi non yenn waajur yi ñu ngi télé ñi ngi tere seen i doom théâtre ñu ngi tere seen doom théâtre ñooñu rek la parce que kaay ma wax aad nag aad nag seen métier mi dafa bëri ay caga clandestin de. non kaay dama la wax benn mbir du ñëpp nag yàlla dëgg rek la bëgg ñi nga xam te ni bëgg nañu métier mi wallahi azim bëgg ci am dara am ci avenir bëgg ci dimbali seen ay waay jur te yàlla rek tax ñu ngi koy def te yàlla rek tax séntu wuñ ci daray jigéen wala dara lu bon ñi nga xam te dañ cey jóg xam ne ñoom seen carrière yàqu na ñu ciy doxalee ñenn ñi rek ñoo koy def waajur yu bari ñu ngi tere seeni doom théâtre boo gisee sénégalais ñu bàkkal ñu ñun théâtre kat yenn parce que ñenn ñoo koy jëfe am na ci nag ñenn ñoo xamante ni dañuy a dem di liggéey seen ay liggéeyu guddi bëgg ko jaaree ci théâtre dugg ci pour profiter ci occasion def ko léegi nag yooyu nag day tax waajur yi duñu am confiance ci seen ay doom parce que dañ naan parce que boobaa duñu xam ku koy def ak ko def parce ah yooyu la ñuy def léegi nag yooyu baaxul yooyu baaxul man gëwuma loolu gis nga nit da ngay da ngay da ngay fonk sa bopp diñ mën ta wees fa nga juddoo màggee yaroo fa bu la yàlla mayee teraanga noo continuer nga dëkk fa même bu fekkente ne yàlla dimbal na dem nga ba benn instant boo xam te ne mënatoo fa dëkk nga dem loger feneen non day fa boo yeewoo foofu boo yeewoo foofu dox sax soxloo pare non doo fi ñëw di yendu nit ñi di la gis man de ñaan naa yàlla lu ma yàlla mënti may Pikine gii ma juddoo yaroo màggee yàlla bu fi génn parce que lépp fii la nag ku fàttali la fal la foolu day yomb di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji ñu mu naqari wala bu dee wax naa fi bêtise maa ngi tuub di jéggalu bu baax a baax rawatina kilifa yi nga xam te ñoo nekk ci métier mi di ma déglu te di ko doxal mu nekku dëgg ñu nekk ay nitu dëgg bi ñu jëm jëmale yoon bu baax ñooñu laay jéglu bu dee am na ci ay kilifa yoo xam te tamit comme ñu ma ko ñu ma ñu ci jàdd di ci def yu bon man moom garaawul man moom buñ ma jéggal ñoom ñoo ko def. magi jaamur dañoo sikk de am na ñoo xam mooy li ma wax sànq ñooy woote ay producteur dem du bokk seen film balaa ñu jaar seen kaw ñoo ko nangu gis nga nit da fonk sa bopp fonk sa bopp mënta ko am na euh, wax la doon wax naan acteur principal sexe principal ngeen baal ma dëgg la gars yi doon ñu dund loolu suñu jigéen ñi na ma ci yàlla baal du ñu ñëpp nag de ñi koy def xam nañ bu dee ñi may seetaan ñoom laay waxal bu dee ku xocul def defoo ko waxuma ak yow nañu ñu ña ñuy woo ñu leen di sàkku man sama wax nëbbu principal mooy acteur principal sexe principal ngay joxe doo ko nekk acteur principal dëgg la. subhanallah si koo xam si yow li ngay def da koy def pour jàngal nit ñi wala nga yee nit ñi. wallaay azim dafa am barki alxuraanu karim ci métier mi laa nekk salteelu ma métier mi yàquma deru kenn waxuma am na ñu koy def nañ ko baax. loolu moo tax nit ñi ñenn comédien du comédien yi nga xam te ñi ngi doxal nag ñi leen di respecté ñi ngi jox gëdd ñi xam seeni valeur ala ci ñoom xaalis ci ñoom ñi ngi tegu fi ñu war a teg ñi ngi leen di respecté ñun ndaw ñi bi nag ñoo ci gën a yées nettali fii bem fii yéeg fii enregistré tegal kii yooyoo fi ne tàggoo woon noonu ba pare nañ tàggoowaat ba yéen waaw mi ngi noonu rendez-vous dans 15 moo moo moo tax saa yéen tàggoo moo loolu wax ne kon seen SBT Média ngeen ba seen tous ko notification bu ko defee vidéo yi nga xam si ni mi ngi ñëw ngeen man si ànd ñun baax a baax mais aada noo gisee SBT Média non SBT Média moom moom moom beneen affaire la parce que maa koy suivre nag li wax na gars yi di bës cloche de notification bi di commentaire pour vidéo bi ñëwee ñu gis ko di ñaan yàlla yàlla na nekk télé bu mag parce que yow mi ko moom yow mi ko nga xam te ni yaa koy doxal yow dañoo am ay relation yoo xam te ni dafa jiitu lii donc say mbir dañ ciy taqarib yow laa njëkk a def sortie ci sa internet man boo seetloo mus bi ma dalee def théâtre ba tey musuma génn ci sa internet bay bëgg dee nag li ñuy xaartoo xaartoo dafa laa woo bay bëgg dafa laa woo bay bëgg dee nga bañ naa ma noo xaar c'est-à-dire affaire yooyu rek waaw mais c'est normal parce que mënul ma la ko bañal te bésu aussi dafa tombeek tamit ma war a wax bëgg a dénoncé yenn yi damaa nekk ci koor sax moo tax yenn yi du ma ko tudd mais léegi 15 jours boobu xam nga koor gi li des bareetu nañu bàyyi ba koor gi jeex bu ñu waree nga xam damay am sañ-sañ yu gën a mën a wax man léegi dama yaru. dafa loolu bu boobaa ma gën a mën a wax jaar ci digg bi ko defee ñu ne moom moom de. ginaar ma ñëw su boobaa ci digg bi ko defee ñenn ñi moom de dafa réew dafa bon dafa nangam ñu gën maa classé nañ ma classé ci dëgg waaye métier mi moom man sama aadama aadama jaro sol naa sama dàll ñi fi def ñu bon dinaa leen dénoncé bu yaboo nañ ma yóbbu xaati man nañ ma def lu nekk waaye dina fi dàq par A ou B parce que métier mi ñu nekk man dama ko bëgg li ma bëgg nag nit du maa promettre benn affaire ma nit ci émission boobu noonu fi fi noonu invisible laa parce que am na ñu bëri sama waa la ñu dégg rek mais boobu boobu damay toog jaxaran ci laay ci laay ci laay génnee invisible bi ci lay jeexee. amul benn problème incha allah dinaa la xaar ñoo far jaajëf di